baabul li ab bunt la fi axkaami dimaa ci àttey deret yi wal xuduudi ak jotan yi xanaam nit ñi xam nga bu ñu tasee faaw rek ñu jàppante ba deret di ca tuuru kon dana wax àtte yi ñu war a àtte ci googu wàlla jotan yi tam mooy lu mel ne ku xëtti woon ni ki njaaloo la mu naan sàngara wala mu sàcc def nañ koy jotal maanaam teg ya ko yoon di teg ba moroom bañ a def lim def moom it loolu tudd ay jotan daañu ko andi ci biir buntu yi wala tuqtalu deful rey nafsun bakkan bi nafsin ci bakkan illaa bi bayyinatin dara ci seere xaajilatin suy aji maandu aw bi itiraafin wala ci ak tudd abdul xasaamati wala ci ngiñ isa wajabat ne war na nee na nag yoon dafa saxal ku rey nit te sarte daje ca ñu fayee ci yoon a nga ko reyee mu ne loolu la koy saxal nag mooy mu am ay seere su fekkee am na ñaari seere yu maandu moom mopp ko seere ne diw mi moo lay diw kon loolu sax na su fekkee ne itam mukallaf mi wax moo waxal boppam ànd ak sagoom ànd ak tey bëkkanam kenn forcé ko mu wax ne man diw maa ko rey mooy ixtiraaf ixtiraaf mooy tudd mooy nangu ne maa def te loo xam ne luñ ko forcé am tagoo te sagoom dara mooy jékki-jékki ne diw rek maa ko rey wax ko wër bu dee kon loolu ñu fayu ci moom bi des nag mooy ngiñ ngiñ moom li ko waral mooy bu fekkee am na ku tuuma taq ne moom nii moo def rey gi dañ ko wax léegi ci kanam su fekkee ne moom aajoo na lu ko saxal mbokki kookee ñu rey ñoom ñooy waa juróom fukki ngiñ boole ko tuuma jooju taq waaja su ko defee ñu jàpp ne waajaa def rey gi wala ba jóg nag fayu ci moom dañ wax nag ngiñ loolu kañ lay war yokk si ma dana giñ alwalaatu kilifa ya xam si ne juróom fukk ñoom ñu nam ci ay ngiñ wa yastaxiqoona te ñu yeewoo addama deret ja nee na su tuuma ji taqee kee ne kee moo rey waa ji kon bu fekkee aajo woon a waat boole ca kon ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa kii rey maanaam ñooy mbokk yi kañu rey ñooy waat juróom fukki ngiñ boole kook tuuma yooyu taq kooka rek ni ma ko waxee léegi laa di rey kooka yeeyoo deret ji mooy rek yeeyoo fayu ca kooka wala yaxalifu duwaat fil hamdi ci deret yi tey aqalu lu yées min rajulin ci ñaari waay nee na nag ka nga xam ne moom la ñu rey te tuuma ji am kum taq waaye soxut nee na su aajoo waat te fekk na loola kat deret yi tey la mooy ka ko def moo ko tey kon nee na ñooy waat juróom fukk ngi ñu lim néew néew mat ñaari góor genn góor mënu ko lu néew néew mat ñaari góor kenn rek moom du ko mën te daañu leeral na jigéen moom bu dee deret tey jigéen du ci mën a waat góor rek a cay waat wala yoqtul deful lañu bil xasaamati ci ngeen la ak far lépp mu rajulin ci góor mu rajulin ci waay waaxidin ju jenn te kan nee na bu fekkee tuuma ja mbooloo la taq nit ki mbooloo dem rek sexitoo nit di ko dóor ba kooku faatu te complot wuñ ko woon yàlla dogal rek kenn ku nekk dóor ko ba mu far faatu te mënuñu xàmmee ne diw ci boppam daal moo ko rey moo ko dóor ba mu faatu ñoom ñëpp ñoo ci laal kon nee na ay mbokkam nañu waa juróom fukki ngiñ ñu jàpp kenn reyal leen maanaam bu ko defee ñoom ñu tànn kenn rek ci mbooloo ma ñu reyal leen ko mu daal di doon seenu fayu waaye duñ mën a rey mbooloo mi yëpp yëpp tax mu naan ñii rek moom des ci rey lu ëpp kenn loolu fay wax fi ne yaani anna man darabahu jamaatun min xayri tamalu in ala qatlihi walam tatamayas jinaayatu kullin wa maata fa inna awliyaahu yaxtaaruuna waaxidan yuqsimuuna alayhi wa yuqtalu ويضرب كل واحد ممن بقي مئة ويسجن عاما fekk ne mbooloo ñu sexatoo kenn dóor ko rek ba mu faatu waaye nag lu loo xam ne ñu ko waxtaanee kompaloo ko waaw kon dañu aajo woon waat ay mbokkam dañuy seet rek waa juróom fukki ngi ñi daal jàpp kenn kenn rek la ñuy jàpp ne moom nii mooma daal waa juróom fukki ngi ca ko ñu reyal leen kooku dong ñu def ca mbooloo ma kenn ku nekk na ñu dóor la téeméer yar tëj la mat waaye lu tax nañu rey mbooloo mi yëpp suñ ko complot nañ ko wax ci kanam moom nañ ko complot rey kenn ñoom ñoom ñëpp lañu rey ñu ñëw ci kanam wa innama tajibu naka dana war alxasaamatu ngin la bi xawlil mayiti ci waxi ka faatu ne damay sama deret xinna fulaan nekk na fa diw day wax nag tuuma yi nga xam ne mooy taqal nit te ay mbokkam maanaam mbokki kañ rey war a waat boole ca boole tuuma ji bokk na ca nag waa ji laata muy faatu dañ ko ne waaw ku ma def lii mu ne diw de ma ko def diw yooyu di ko ne man defuma ko kon xam nga diw moomee tuuma taq na ko ndax waa ji laata muy faatu ne ne diw ma def nii moo jam nii door a faatu te loolu bu fekkee am leen lu ko mën a soxal ay mbokkam mooy waa ji faatu ñooy waa diru ki ngiñ boole ko tuuma ji taq kooka ko defee nag ñu daal di fayoo ci kooka aw bi shaahid wala ci seen seere xal xatlu ca rey ga wala benn seere bu maandu seere ne diw mii moo rey diw waaye mu mënu ñoom kenn ku ci dolli bu ci mën dolli kenn moom mu daal di sotti waaye mënu ñoom keneen kenn ku man daal moom seere na ne diw rey diw kon tuuma taq na diw ne moo rey ay mbokkam kon bu ñu ne waa dinañ fukk nit boole ji rek ak benn seere boobu rek daal leen di fayoo ci kooka aw bi shaahid wala ci yaari seere xalal jarxi ci jam ga su yàgg yi si topp dana dund ba xam ne faarul gi ci gannaaw loolee yàqul di lekk wala shrbi te muy naan ba tey nee na bu fekkoon ne am na yaari seere yu maan yu seere ne diw mi moo jam diw mi waaye dañoo gis nag waa ji wax ne moom lañ jam gannaaw bi dundaat na fa dund wër lekk naan gi mu wax sax mën na caa ba ñaag waaye daal moom gis na ne dundaat na fa dund wër moom gisaal dund dina dal dee fasaas daal lañ bëgg a wax loolu di faatu fasaasa su boobaa dana aajoo juróom fukki nit ñi ndax juróom fukki nit ñi mooy dëgëral ne jam ji ko waaj jam ci la deexee leneen leen bu tawate ko gaañ mbaa leneen jam doo ñu ko doo waaj jam mbaa jam ko waaj jam ci la faatoo mais bu fekkoon ne bu yaari seere yi seere diw jam ko dafa daal di faatu kooku daal daal di faatu kon kon ci dëgg-dëgg dañuy àtte ne kon ñaari seere seere na diw rey na diw rek mu daal di sotti waaye nag lañ ci teg mooy dafa doon def faatu fi saasa dafa dundaat moo xam lekk naan ngeen wax àgg na ci defaat ko wala àgg ci waaye moom dundaatu daal kooku mooy aajo moom julli wa isa naka la ndeem ñiini na nga wax ñiini rek waaye mooy ndeem ragal naa waat muddahu dami way jiiñe deret ja xalafa kon waat al muddaha ñi ñu jiiñ xalehim ci ñoom da ko def mbooloo waaye al muddaha xalehi rek mu gën a gàtt xam si ne juróom fukk yi mën nañ cee ngiñ nee na bu fekkee dañoo wax mbokk yi ki ñu rey ne leen yéen kat tuuma taq na kii waaye da ngeen di waaj dafa fi ngeen boole ci tuuma door a sax ñoom ragal a waat ñoom ragal a waat kon dañuy wax kooku yooyu ñu tuumaal ne ko yaa rey ko tuuma bi taq ñu wax ne ko waatul juróom fukki ngeen setal sa bopp ko defee bu waatee juróom fukki ngeen bu waatee juróom fukki ngeen daal di set fay la ngay jëndee amut man koo xam ne yaxalifu dana waat mu laaj yi ci ay kilifa max bu ànd ak moom dane xayral mu daxa ndare kañu jiñ xale yi ci moom kooku nag bu ne woon xayrahu ndare moom rek mooy gën a wat wax dafa moom rek xalafu kon mu waat alxamsi na juróom ko yëpp nee na bu fekkee dañoo wax waa ji tuumaal ne ko yow kat mbokki waa ji ragal nañu waa juróom ko yow nag kon waat la juróom ko seetal sa bopp mu ne kon na ma saay mbokk waatle ay mbokkam ñoom ñëwoon ko waatle man naa wóoluñ ko ndax dañoo gis ne ku dëng la ñëwoon ko waatle loolu miimal ko kon nee na moom ci boppam su ma nee waatu bopp juróom fukk yëpp comme say boobu waa juróom fukk yëpp benn yoon ko defee ñu bàyyi ko wala it dox ya doon te jiiñee foon na alxatlu rey ga xalaa jamaaxatin ci mbooloo xalafa kon waat kulu waahidin kenn ku ne xam si ne juróom fukk yoo mënoon cee mbiñ dana bu fekkoon ne tuuma rey gi mbooloo la dal waaye saxut na nga xam ne waat daa war a dañoo war a waat juróom fukk ngir ngir saxal ko te it mbokki kii ñu rey ñu ñu ñëw waat ñoom kon mbooloo mu ñu jiñ rey gi ñoom ñëpp duñ leen seddal juróom fukk déedéet kenn ku ne day waat juróom fukki boppam ngir seetal boppam kenn ku nekk juróom fukki boppam lay waat seetale ko boppam waaye ñoom ñu ji yoon duñ leen boole ñoom ñëpp juróom fukk déedéet waaye xalifu dana waat mu ne wilaayati ci kilifa yi fii tala bi dem ci sàkku déedéet ja xam si xam su xam suuna juróom fukk rajuloon ci ay góor xam si juróom fukk yemee noon ci ngi nee na bu fekkee ne tuuma taq na kenn ba ñu wax ne famille famille ki ñu rey ñoo war a waat juróom fukki ngiñ saxale ko tuuma ji ñu fay leen ci kooku kooku nee na bu fekkee ne famille bi dañoo yaatu ba nga xam ne mën woon juróom fukki juróom fukki góor waaw seet nañ ko waaye moom famille bi yaatu la juróom fukki mën na caa taxaw kenn ku ne waat benn kon juróom fukki day taxaw rek kenn ku ne waat benn mooy gën a noppale mu daal di mat ndax seen famille boobu yaatu na wa in kaanoo dem nekk nañu aqal la di ko yees nag xusimat kon séddaleef xale yi ci ñoom al aymaanu ngi ñeex bu fekkee ne seen famille boobu matul juróom fukki góor yi mënu caa taxaw waat nag kon ñu seet na góor ñu toll ñu séddal leen juróom fukki ngiñ ku nekk waat ci bilim ba mat wala taxalif duwaat imraatun jigéen fil hamdi ci deret tey maanaam nag bu fekkee ne karay rey nga moo ko tey góor rek ay waat bu ajoo waat góor rek cay waat waaye jigéen moom du waat ci deret tey wa taxalifu dana waat alwarifatu way doon ya fil xata yi ci tayeeful ba xadrima ci kem la nga xam ne yari fon danañu ko doon mu ne diyeet ci dee ja mu ma jigéen moo xam góor la amam raat na wala jigéen nee na bu fekkoon ne nag ki def mbir mi moom tëwu ko xam lu yàgg-yàgg moom bu saxee itam jiyee rek lay fay kon nee na loolu bu ajoo waat ndax tuuma daa tax kenn rek waaye saxut dama ajoo waat kon noonu kon nee na foofu moom jigéen dana ci mën a waat jigéen ak góor ñëpp ñooy waat te buñ dee seet kenn ku nekk itam dañuy seet buñ dee miraas loo war a am ci miraas mi lu toll noonu ngay waat ndax xam nga ne góor jigéen dañoo ëppale wàll dañoo ëppalante wàll ci miraas ndax xam nga doom bu góor doo ñaari tali doom bu jigéen kon nag buñ dee seet doom ñu di ko waat itam doom bu góor mooy ñaari tali doom bu jigéen ci lii ñi nga xam ne ci minam lii ñi nga xam ne moom la kenn ku ne war a waat wa inin kasarat ndem damm na yeminum benn ngiñ xalihim ci ñoom xalafaha kun waat ko ak faruhum gën jaabari seen nasiban cib cër min xaa ci benn ngiñ boobee nee na boo leen doon séddalee juróom fukk ngiñ yi nga àgg ci benn ngiñ boo xam ne ku nekk da caa war a laal xam nga benn ngiñ mënee su ko séddoo xam nga kon ni nga waxee léegi mooy dangaa wax ne suñu waree waat juróom fukki ngiñ te muy loo xam ne kooku tewu ko nga xam ne diw rek lay joxe kon na nga leen di séddale moom ni war a waan ngi ñi kenn ku ci nekk nag na mu war a ëppalee ca banab alal ja noonu la war a ëppalee ci limu ngi ñi mu ne baagee ci benn ngi boo xam ne kee da caa war a laal kee war caa laal benn ngi mën a su ko séddale mais kon na ngay seet rek ka nga xam ne boo ñu gën a séddale bu doon jëmm jëmmi alal nga ñu ko séddale ka ci ëppale rek kooku muy waat muy waat benn ngi boobu moom la faraa bi misaale fii fa lay taraka ibnan wa bintan فالمسألة من ثلاثة للذكر ثلاثة وثلاثان وثلث وللبنت ستة عشر وثلثان فكان فتحله سبعة عشر يمينا يعني سيكون بن بن بغير أو بن بن بجيان لن نورا سيد وظروف نيوي كان دب فكان على الله أن تيري لف نتخاج غير جيجل ناري خاجنا جيان جل بن ما ولن يسد لنجينا كون نعمل نكون غير كده ورام 33 ak ab ceer bu jigéen keer am 16 fukk juróom benn ak ñaari ceer kon ma ne benn ngiñ boobu jigéen doo ci ëppale kon jigéen bi jigéen ji kon day day junni fukk juróom ñaar rek benn ndax moo ëppale ci benn boobu ndax du ci am ñaari ceer te boobu am ci benn ceer rek ba isa xabara ndem teewe na ndem teew na rek bax bu war a fekk jiyatul xata yi lenn ci yooyu doon diwu tayee ful lam yokkoon kon du nekk loxo di ko ñeel buddun ak jaas ay yaxalifa ci mu waat ci muy xel ay may na mbooloo ngi ñi su yaxalifa toog dina waat man yaati ku dikk baax du ci gannaawam bi xadru nasibihi ci kam ab cëram minal miraas ci benn ba dafa wax ne nag bu fekkee ne mbir ma ki wa def tawu ko waaye aajo woon a waat nag ndax dafa soxut dama wax ne kon ñaar ñu war a doon kenn ku nekk dañuy seet na ab doonam toll mu waat ci ngi ñi lim bu toll noonu ñenn ña teew fa nag ñenn ña teew ñu fa kon dañuy wax ñu fa teew ne leen waat leen di ruuf yëpp mu sotti mu mat ndax àttekat mën a àtte mu deñ àttekat mën a àtte mbir mu sax mu sotti ñoom ña fa teew nag bu waatee di ruuf yëpp nag du tee ku ñëwaat ci gannaaw bi te bokk ci way doon nii xam ne boo teewoon am lim boo war a waat ba tey du tee nga ñëw waat lim booba waaw ndax ñu njëkk ñu jàlloon la woon moo defoon rek ngir mu ci mën a sotti waaye du tee kenn ku ñëwaat ci gannaaw bi na mu seet ñu la séddoo lim boo war a waat nga waat lu toll noonu wa yaxlifoon danañu waat fil xasaamati ci nii la xiyaaman bi mu ñëwee taxaw mais nag koo ci xam ne dañ laa digal nga war a waat nag ci fa nit ki rey booy waat da ngay taxaw taxaw bi ngay taxawal ak ñàngal rek lañ ci jublu mooy bëgg rek bu fekkee ragal nga dara nga bañ a waat te deltu gannaaw ñu ci léegi def nañu di ilaa màkk te jëm màkk wal madina ak madina إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أو بيت المقدس أهل أعمالها ينشين جراف ينشين جراف نيسن نيسن ديبارتمان رك دا واخنا صاح بو يال دوغالي نيوم ني ورا وات تري ني دي بوك تي وا مكة دا مدينة دا بيت المقدس دا لا كور خامني دا جيغي فوفو kon nee na ñoom ñodd ba ci béréb bu sell yooyu ñu taxaw foofu waate fa ndax bëgg a ñàngal mbir ma rek ba koo ci xam ne ngay waat wéeru la nga teel a daw bañ cee waat nga ragal bañ cee waat wala yi léegi doo ful ñoddee fii xëy na ci julli yooyu illaa mil amiwaale bu ci ay kilomètre di wax kilomètre waaye ëpp na ko mil mooy ëpp na kilomètre jege na kilomètre genn wàll am wasirité aju néew nee na bu fekkee foofu am na béréb yu koy màggal di ko sell xam ñu bari ragal nañ faa taxaw di waat moom it gis naa ñoo di kii waat ne ko kaay kaay fii waate bi waaye nag ci kaw bañ a sori daga moom du màkk du ma jël du wet lu xalisaa bu dee ay kilomètres yoo xam dafa ko bari lool xam ne ñooy waate fa du sell kon mu indi ko ba ci foofa ci béréb bu sell boobu mu waate fa waaye bu sori rek sori na mu bàyyi ko wala xasaamatu déet ngi fii jëre ngi nekk ci jam-jam maanaam nag bu fekkee ne ñoo wax ne diw moo jam diw ki benn seere rek seere ne diw jam diw waaye kenn mboolu ko ca te diw yooyu faatuwut kooku ay bokkam duñ mën a waat ci fukki yi ñu saxale ko jam-jam bi jam-jam daal moom day sax rek ci ay seere yu wér bu saxee ci ay seere rek ñu sit la def la ca war fekkee fayantoo moo ca war baax na bu fekkee ne fayal la ca war waaye moom dina fukki ñu nga waxoon ci bakkan dong lañ ko def waaye kenn du ko def ci jam-jam ku tu ku tuuma tax ci jam-jam di tax ay mbokk mën nañoo waat dolli ca ngir daal di saxal jam-jam bi déedéet wala fi xam duñ di caagéen ci ab jaam ab jaam ba tey dañ ko reyee am ku tuuma taq it mbokki ay mbokki jaam ba duñ mën a ñëw waat ngir saxal rey boobu déedéet te ñu bàyyi rek jaam moom duñ ne tuuma taq na doo ne diwoo ko rey daal ñu topp ko bu baax su rek nga ne sax na ne diw ñoo rey jaam bi ay wax la ca war mooy day fay xëy may mbokki ay mbokki jàmbur du mën a ñëwaat ngir saxal rey boobu déedéet dañuy bàyyi rek jaam moom bu ne fi ma tax na doon diwoo ko rey daal ñu topp ko bu baax fekk nga ne sax na diw moo rey jaam bi ay wax la ca war mooy day fay xaymay jaam bi rek ndax xayma ja toll rek bu bari mu ne loolu lay fay waaye ñu leeral ne nag képp koo xam ne fayantu woon ci yow ndax sart bu xët ñu fi xanaa bu tee ñu mën a fay ci yow gannaaw daañu la biir téeméer toj la mat ndax bakkan dafa diis kon ku reyu jaam xëy na jërëjëf ngay fay waaye bu fàtte loolu ñu koy def fekkee ne rey bi saxul nag ñu xam ne saxul rek waaye kenn du ca waat moom wala benn ahlu kitaab bi di jaagee ci diggante moom téere ya maanaam kañ rey bu fekkee du julit day yahuudi yi mbaa nasaraan yi kooku jàppal naa kañ rey moom bu doonee pour julit ni ki yahud mbaa nasaraan daal rey ga saxee rek nga xam ne rey ga sax na bu fekkee saxut nag tuuma rek moo tax kenn du tax mbokki kañu rey ñu ñoo mën a waa diwuf kii déedéet si diñu rek lañ koy def waaye di ko def ci ahlul kitaab wala fi xatilin di caay yéene ci kuñu rey bay na safee na ci diggante ñaari sàppee julit saa ma jàpp sax ne bu fekkee ne ñaari kuréel julit ñu tase tase xeex kenn ku nekk daa jàpp ne sañ naa xeex ak moroomam buñ tasee ba xeex kenn ku ci faatu ñàkk sa bakkan rek ku ci faatu ñàkk am mujj de wala fekkeef ko fii ma xàllati xaw nañ ci béréb bu aw nit maanaam mu fekkee nit ñu rey ko mu dend ak kër jaamur rek kenn daal jàpp waa kër boobu ne leen yéen a koy xanaa fañ fekk waa jaam mooy foo xam ne ñoom waa kër bi doo nga fay dem kenn du fa dem waaye day mu mu mu jege leen rek li wër sax ñu tuumaale ne leen yéen a ko rek daal di bëgg waa di ko kii bëgg ko saxal déedéet ndax xam nga kenn mën na koo rey ñoddi ko ba mu jege kër jaamur mu teg ko foofu loolu nag kon du tuuma du tuuma ci waa kër ga waxat yu wulati rek yongu yongu baatu wolof la mooy assasina assasina mooy tamit rey ko ndax jël alalam bàyyi dama noonu kooku nag moom xam nga bu xasee am ci béréb rek jàmm dal fay taxu day kenn baamati jàmm ndax xam nga tey tey dëkk bi nga nekk rek boo yëgën ne am na ñu fa dëgg ay bopp rek bu dee rek jaana kenn baamati jàmm moo tax nag moom loolu dafa ku ko def loolu jàppee faaw rey mu rey la loolu wax na rey yong la xam fii dootul baale fii di nekk ci moom maanaam boobu rey ku koy def moom bu leen jàppee donte ka nga rey nee na woon baal naa ko it lu bu leen fay ci moom it dutee rek moom ñu rey ko ndax seet loolu ndax daa mën a ñàkkal jàmm lool am réew wala dëkk wala la julli ñaan la waaji alxafu baale xan damul lu walis deretam alxamdu jëli tey illam yakun dem nekkut xat la xeelit mbiray yongu nee na sax moom ñu rey bu xamee ne diw diw ko def li mu ko def laata mu faatu mën na ne ah moo ko tey de waaye baal naa ko ko moo ko tey de waaye baal naa ko ko xam ne waroon fayantoo ci kooku mu ne la man baal naa ko ko loolu sañ na ko bu fekkoon ne day mu tawul de daañu ko wax léegi waaye bu dee rey ko mu rey rey boo xam ne ko rey moom tawul mën na koo baal balaa faatu ci kaw mu nekk nag rey yoon rey yoon nga wax léegi bu fekkee rey yoon googu la moom ñu la ko waxee kenn ko baal ko baale du ca rey ko waxa fi ma jéggaleen xamul xata yoon si tayeeful fii sumusi yi nekk na ci ceeram maanaam bu fekkee ki ko rey taw ko xam nga kon loolu moo des ci fay ci kooku al alal rek la war a joxe moom bu nee baal naa ko nag mel na kooku wartu fay diye nag day mel ne kon daa yëkkati alal rek may ko day mel ne kon ku dénkaane moo ko jógee nag na ko joxal alal ci tool nangam man nga ko misaal rek bu fekkee ne ki rey taw ko ba ñu wax ne ko war nañ ko jox diye ci misaal téeméeri gëleem te léegi moom bu ne baal naa ko day mel ne kon rek ku dénkaan yi moo fi jógee nag ne ko joxal téeméeri gëléem su fekkee ab ceeram maanaam suñu si àllam mat na loolu kon baal ko sotti waaye bu fekkee ne ku seet ceeru àllam du mat loolu mu ko bëgg a baal kon baal ko du sotti mu faaw rek boo ko fay li mu ëppee ceeru waa ji li mu ëppee suñu si waa ji wa in xafaa ndeem jéggale ne axadu dañu ne kenn ci doomu góor yi fala xat la kon déet ku rey maanaam nag bu fekkee ne kee moom moo ko tey warefoon naa fay ci rey ko waaye kenn ci doomu góor yi ci faatu moo wax ne man baali naa saa wàll bu ñu fa waxee rek ñu fa des duñ mën a taxaw ne faaw ñu rey ko ci leen di wax ne leen yéen kon ndegam baale woo leen nañ seet ñu day joxe diwee lu diwee ci toll ku leen jox la sa wàll rek waaye bu kenn xasee baale ñu rey du mën a amati moom mooy li man ñeel na ka nga xam ne baq yi des na ñeel na nga xam ne baq yi des na ni nasibukum seen wàll mën a diwét ci dee ja ñu baale wut ñoom dañuy seet ñu doon joxe diwé mu diwé tool rek ku nekk ñu jox la sa wàll te baale nag moom bu am dara ci alal ndax baale na ba noppi moo tey itam fayantoo yaam wala xa foo deetub baale lii banaati ñeel doomu jigéen ya maxal bañu ne ànd doomu góor ya su fekkee ki ñu rey daa am doomu góor am doomu jigéen bu doon jigéen ñi kese waxee seenu baal waaye benn boobu góor àndu ca du tee du tax baal ga sotti waaw du tax baal ga sotti bu kenn toogu góor yoroon rek moom baal gi sotti nga xam ne que baal wutit àllam wàllam rek lay mën a fay waaye nag bu fekkee doomu jigéen ñi dañ fee nekk doomu góor doomu jigéen ñi kese wax seen doomu jigéen ñi kese wax seenu baal ah loolu kenn du ko faale ba tey sax bu doon ay mbokk yu góor ak ay mbokk yu jigéen su mbokk yu góor su mel ni mbokk mu war a xasee baal rek jeex na dafay mën a fayantoo ci waaye bu fekkee ne mbokk yu jigéen rek ñoo baale waaye ba tey loolu kon baale kenn ko faale kenn ko gees sax amoon koo xam ne xuu fiye jéggalee na xam xamalis ko fil xam di ci dereti tey bërëbu kon bërëf ko ni atan téeméer weer waxu bi sati tëjeef ko aman at loolu nag moom daa matale képp koo xam ne dangaa rey te tey ko waaye nag lu Mustafa yi ci yow ndax benn la ko waral mooy ki ko rey moo wax ne baal na la te baal ga mën a sotti mbaa dañoo seet kam rey noo leen tawut ak moom nit ki moom diwul la rey ab yéefar mbaa moom ngor la rey ab jaam kon des mën a fay ci moom boobaa nag des na ko dóor téeméer yar tëj ko mat ndax bakkan dafa diis def ko loolu ndax boo liggéey ba ñu defar lu mel noonu wa diyatu diya xalaa ahlil ibili war ñooñ gëléem yi mi atun téeméer la minal ibili ciy gëléem wa xalaa ahlil zahabi bu waree ci ñooñ wurus alfu dinaarin mooy junni dinaar waxaan la ahlul wariqi bu waree it ñun xaalis isna xasra mooy fukk ak ñaar alfa dirhamin ci junni dërëm dafa wax nag ne maanaam yooyu jamono ba ñu taalif téere yi booba ñeen ñu nekk dañuy seet alal ja ñu ëpp jëfandikoo rek ñu àtte ca alal jooja am na ñoo xam ne yooyu jamono wurus moo doon seen la ñuy jëfandikoo ci wàllu jëflante ji kon ñooy junni dinaar bu fekkee ne dee war na ko dee ju mat junni dinaar la ko koy joxe bu dee ñi nga xam ne seen alal mooy gëleem yooyu jamono kon ku dee war téeméeri gëleem lay joxe bu dee ñi nga xam ne xaalis boobu mooy seen mbir itam yooyu jamono ku dee war nga joxe fukki junni ñaar fukki junni ñaar yooyu nag buñ ko ñu ko seetoon fi mu toll day bari ndax xam nga xaalis boobu boo ko leen seet ci ni mu toll léegi day bari waaw ndax seetlu nga ne léegi li ñu wax ñett borom yoon rek bu ñu ko dee seet gis nga ne léegi xëy na matagu ñeenti junni waaye moom loolu lay xaw a bari xaat loolu na xam nga fukki junni ñaar boo ko defee loolu daal di bari te loolu mën nañ koo seet ba daal di xam léegi li muy toll ci xaalis bi bu soow yàlla wadiyatul xam di diyee tey ida qubilat ndem nangoof na ko xam suñ juróom la wa xisrinoon ñaar fukk xiqatan ci xiqa wa xam suñ ak juróom wa xisroon ak ñaar fukk jataxatan ci jataa wa xam suñ ak juróom wa xisroon ak ñaar fukk banta la doon ci ay bant la doon wa xam suñ ak juróom wa xisroon ak ñaar fukk banta maxaaban ci ay bant maxaab maanaam kii joxe diyee ji bu fekkee moo rey tey ga te fayuñ ci moom nga xam ne diyee lay joxe kon dañ koy jofeel dañ koy jofeel nag mooy téeméer lay doon waaye dañ koy seet na mu koy joxee du rek day wàññi téeméer joxe dañ koy wax ne ko bint maxaabu da nga si joxe ñaar fukk juróom bint la doon nga joxe ci ñaar fukk juróom bu juróom fukk ko defee jafa nga joxe ci ñaar fukk juróom xeqa nga joxe ci ñaar fukk juróom ko dee nañu wax doon téeméer waaye diyeetul xata yi diyee teye fu nag muy diyee ñàkk tey mu xam masatu woon juróomeel la xisiroo na ñaar fukk min kullimaa ci lépp li nga xam ne dakar naa tudd nañ ko wa xisrona ñaar fukk banoo la doon yu ay banoo la doon zukuran yu ay góor nee na nag bu fekkee ne kooku tey ko muy xaw gën a woyof ndax ñeenti xeet ya nga tuddoon muy bintu maxaabu bintu la doon yëqa jasaa bu nekk da siy joxe ñaar fukk kon mu téeméer manqué ñaar fukk su ko defee na ñaar fukki des mu mottalee ko ci banoo la doon banoo la doon nag moom bintu la doon yow tolloo ci at ndax bintu maxaabu mooy comme at bu dugg ci moom ñaareel bunt la woon na sës ci moom nag moom ñaareel bu ko ci moom ñetteel dana la woon na ba tey noonu la waaye moom day góor rek wuute bunt waaye moom day toog waat bi wa inna may tooxal lagu naka def na taral taral mooy tiisal mooy mettil addiyatu diye ja fil abi ca bàyyi ba yar mi mbir moom dana sànni ibna foo doomam bi xadidatin ci yoon bu ñuul fa waqtulu foo tem koy rey yàlla dafa ko ne bàyyi dafa sànni la yoon bu ñuul doomam doom ja faatu waaye gisuñu jenn firnde jooneen ne ko nara rey naka jekk ne bu ñu gisoon firnde bi wét na moom rey ko la nga doon naka jekk moom la ñu fayee ci moom la ñu doon doon doom waaye nag gis ñu ne def ko daal lu ko rey waaye gis ñu firnde joone ne na ko jublu woon a rey kon dañu fay loo bàyyi di diye rek te diye ji ñu mettil ko waaye fa la waqtu defu ko rey bi ci jëlee doom ja rey gam rey doom des ko jëlee waaye des na mettil diye ja ñu lañ koy mettile boobu kon dana nekk xaale bi di ko war talaatoo fa ñu war jafaatan ci jafaa wa talaafoon ak fa ñu war xiqatan ci ay xiqa waaye ba naa ñeen fukk xalifatan ci way ëmb fii butooniha yoo xam nekk na ci seen biir awlaaduha seen doom fii butooniha awlaaduha fadli rek la waaye bañ ne way ëmb rek xam ne ku ëmb moom doom jàng ci biir dafa wax ne bàyyi boobu ni ñuy mettile di ji mooy noonu dañ koy laaj ci jafe fanweer laaj ko ci xiqa fanweer ko dee mu juróom-benn fukk ñu laaj ko ñeen fukk yoo xam ne ñu ëmb mu war ne doomu ngi seen biir daal la ñuy metteelu di yaam bu fekkee da ko war a génn ci wurus ba xaalis ñu seet lii ñu ko wax ci gëléem bu ko seetoon nu war a bañee ca loolu ñu dangale ko noonu ca wurus ba xaalis ba waxi la waxis na ni valika loolee xalaa xaaqilatihi war na biiram waxi la waxis na ni valika loolee fi maalihi nekk na ci alalam am na wax ne ne bàyyi bi nga ko dee fayloo diye jooju moom rek moo ko war a fay jenn wax ñu ne déedéet day mel ne kenn ci famille bi rek moo ko fayoon yépp ñu bokk ko fay loolu wax na moo gën a wóor moom mook famille bi ñooy bokk fay ko ndax bii moom kenn ku ne nag ab famille lay àndal fay ko ñu ko defee wa diyeetu mar'ati diyee jigéen xale nis fi nekk na ci genn wàll bi min diyeetu rajuli ci diyee góor nee na nag lii ji nga wax muy diyee ji mat góor lañ koy jox waaye bu dee jigéen moom day am genn wàll loolu li nga wax léegi genn wàll muy jigéen di am ñu ci borom gëlee jigéen moom di am day nekk juróom fukk muy genn wàllu góor wa kazalika naka noonu diyeetul kitaab yi na diyee ko jóg téere ya nee na kañu doon bu dee góor gu bokk ci yahut mbaa nasaraan ba yem ak jigéenu jullit mooy moom itam genn wàllu diyee lay am te góor gi sax mooy am loolu ndewoon nisaawam seeni jigéen xaalu nis fi nekk na ci genn wàll ba min zalika ci loolee ndax jigéen ja borom yahudi ya mbaa nasaraan ya genn wàllu la góoram di am lay am te xam nga ne góoram mi ngi tolloog jigéenu jullit wala majoos yi ak majoos majoos yi mooy koo xam ne nekkul ci diine ji bàyyi ko ci asamaan sawara lay jaam mbaa xiram mbaa leneen daal waaye moom lu diine ji bàyyi ko ci asamaan kooku dietu foo di am tamaama mi etti dirhamin juróom-ñetti téeméer dërëm la maanaam ñu ko dee fayal dee dañ koy fayal juróom-ñetti téeméer dërëm kooku it bu ñu ko seetoon ci xaalis bi daal di xaw a bëri waaye nag mu gën a woyof wala saa yu xam seen i jigéen it xaalal nis fi nekk na ci yenn wàll ga ñu faale ko ci loolu te nee nañ ñu mën a wax ñëpp bu ñu góor ga nangam lay am rek xamal ne jigéen ji genn wàll loolee góor ga am lay am déem la sax bu am sax ci góor ga da koy xaajal rek yam ja wa diwetu jiraahim diwe seen i jam-jam ka daalika naka noonu la nee na sax buñ ci àggee itam ci mbirum jam-jam yi bu la nee nangam la ñuy joxe ci jam-jam sàngam xam ne loola góor la ñuy jox loola bu dee jigéen nag mu am xaaju loola daal leeral nañ cey def ci kanam tuuti nag mu daal tàmbali nag dagg ab cër mbaa gaañ ci yaram mu ci war wa fi loolu dañu nekk na ci dagg waaru loxo ab diwe tuddee maanaam ko dagg waaru loxo nit te tey ko boole ci moom dañu fay ci moom dagg ay loxoom ni mu daggee loxoom bu fekkee tey ko nag waaw boobu lay fay diwe moom diwe ji mat lay fay moo xam da koo daggee ci mbagg ma nag moo xam da koo daggee ci tikk cere ba ñoo ci yow ku mën daggee rek moom bu dee ñaari loxo yëpp moom diwe ji mat lay fay wa kazalika naka noonu firnde ji lay nit ñaari tànk ñaari tànk itam moo xam da koo daggee ci nit boobu moo xam da koo daggee ci loxo ba ñoo ci yem bu tee rek bu dee ñaari tànk nit moom diwe ji mat la ci fay ay loxo yi lay ne wala ñaari bët ba tey su fekkee dafa foq ñaari bëtam yëpp ba tey diwe ji mat la ko fay wa fi kulli waahidat nekk na ci benn bu ne min huma ci ñoom ñaar nisfa genn wàllum diwe dina bu fekkoon ne benn loxo wala dagg wala benn tànk ba wala benn bopp ba la foq yooyu yëpp moom day fay rek genn wàllu dee boo fi an fi nekk na ci bakkan ba yokkutaxu mbir moom def na dog maalu na fa sukkam wa ak dietu dee dina bu fekkee dafa dagg sukk bakkan wi moom mu dagg lépp bakkan bi ñoo yem dee ji mat lay fay bu fekkee dafa dagg leen ni sukkoo nag waaw su boobaa nag ñu seet lu tollu lam dagg rek mu fay loola wa fi samhi nekk na ci ab nopp ba nekk na ci yàq ak dégg rek addiya tuddee maanaam bu ko defee loo xam ne tax na ak dégg yàq rek mënta déggati rek dée ji mat la koy fay ci kaw nag mu ñaar nopp ñëpp waaye bu fekkee day benn nopp moom xaaju dée rek lay fay wa fi aq li nekk na ci xel addiya tuddee nekk na ci yàq am xel addiya tuddee su ko defee lu lu ko tax a sago sagoom maanaam nit ki mu dóor ko rek mu jaar mu jaare ci tëlbati jaare ci lof xel mat xanaa xel mat ma xelam daal matatut ndax loolu lañ ko dóor kon da koy fay dee ju mat wa fusul bi nekk na ci ndigg yan kasi lu mbir moom dana damm addiya tuddee su demee ndiggam ba tey xam ne mënta taxawati ba tey da koy fay dee ju mat wa fil unsa nekk na ci yaari waa yàlla addiya tuddee bu fekkee dafa dagg yaaru waa yàlla yëpp dee ji mat lay fay bu fekkee dafa dagg benn waa benn waa yàlla ba nag kon xaaju dee lay fay bu fekkoon dafa dagg yaaru waa yàlla yi daggaale fàkkara sa boole ci kon ñaari dee lay fay waaye nag bambaati ma waxoon léegi ne doon wax daal mooy ñaari waa yàlla yi moom bu dee yaar yëpp la dindi kooku lay fay dee ji mat waaye bu fekkee dafa dindi woon benn waa yàlla ba kon xaaju dee lay fay li ma ci teg nag mooy bu fekkee dafa dindi ñaari waa yàlla yi dindi waale bantu sowukaay bi ci bopp nag waaw kay foofu nag lay fay ñaari dee wa fil ashafati nekk na ci bopp fàkkara ak diyatu diya maanaam mu dagg bopp bi ak mu daggaale lépp ñoo yemoo diya ju mat lay fay bu fekkee dafa dagg lenn ni bopp fàkkaraam nag waaw su boobaa nañu seet lu toll lam ci dagg rek mu fay lu toll noonu wa fi nisaali nekk na ci aw làmmiñ ak ak diyatu diya bu fekkee dafa dagg aw làmmiñam diya ju mat la koy fay wa fi maa nekk na ci la nga xam ne mën a xatere na mënu ci moom ak kalaam wax ak diyatu diya su fekkee dëggul laa nañu waaye def na ko mu ko tee mën a waxati lu tee mu fay ko dee ji mat wa fi tabiyayil marati nekk na ci yaari suusi jigéen mu yaari weeni jigéen ak diyatu diya am nee na weeni jigéen ku ko dagg xam nañ koo dagg fa mu sax yi moo xam nañ ko dagg cat la ñoo ci yemoo fekk yaari ween yëpp la dee ji mat lay fay wa fi xaynil awari nekk na ci bëtu aji pat ak diyatu diya maanaam koo xam ne dangaa fekkal mu pat muy benn bët la dese woon léegi boo yàqee benn bët boobu dee ji mat nga koy wéy waaw loolu dañu ko dégalee te xam ne lu tax ndax bu fekkoon ni daa dese benn loxo nga dagg ko it mbaa benn tànk lu tax ñu fay ko dee ji mat waaye bët daal loolu la ci wax moom nenu bu fekkee daa patoon mu yàqal ko benn bët ba desoon dee ji mat la koy fay wa fil mawdixati nekk na ci jam-jamu mawdixa xam suñ juróom minal ibili ci gëléem jam-jam moo di daañu ko leeral léegi ku ko def nit bu fekkee tey ko waaw kon moom day fay juróomi gëléem bu fekkee moo ko tey nañu fay ci moom wa fi shinni nekk na ci bañ xam suñ juróomi gëléem fekkee dafa dindi bëñam baa mu yangal ko yangal goo xam ne moom mënta saxati ñaayam day fay juróomi gëléem wa fi kulli isbahi nekk na ci bépp baaraam xashrun fukki gëléem baaraam bu ne bu ko daggalee nit fukki gëléem la ko cay fay wa fil almulati nekk na ci kóolu baaraam salaasu ñetti gëléem wa sulusun akub ceer maanaam fekkee da ko dafa dama kóolu baaraamam kóolu baaraam bu ne da cay fay ñetti gëléem ak ceeru gëléem ceeru gëléem mooy gëléem boobu ñetti xaaj wa fi kulli ummala ci nekk na ci bépp kóol mu ngal ibhaama yi ci ñaari baaraamu dëy yi xam suñ juróom ñaari ibali ci gëléem maanaam baaraamu dëy yi moom ñaari kóol dong la kon benn kóol boo ci dund rek juróomi gëléem nga cay fay baaraam bu des na nga xam ñetti kóol lañ ñoom ca ngay fay benn kóol bu ne ñetti gëléem ak ceer wa fi munaqila ci nekk na ci ñoom jama munaqila xushurun fukkeelu diye wa nisfu xushurun ak genn wàllu fukkeelu diye jam jam mën a xëy daal ko firi léegi ku ko def nit da nga ko war a fay fukk gëléem a juróom ndax fukkeel bi wax mi asaka yi téeméer mooy fukk genn wàllu fukk it xam nga ne moo juróom kon ko juróom rek moo war jam jam mën a xëy la mu daal lay firi nag jam jam yi waxal nag ba wax la ca war te waxagu la woon mooy lan wal wal moo di xatu jam jamu moo di xa maa mooy ba nga xam ne aw baxa weexal na alhamdulilah yax ba nee na moo defe mooy nga xam ne xaañ na ko ba nga xam ne yax baa ngay feeñ waaye nag foofu dong la yem yax baa ngay feeñ rek waaye loolu sax yax ba moom waaye nag gaañ na wàpp yaram yi ba yax baa ngay feeñ kooku waxal nañ ko la ci war wala mu naqilatu jëm-jëm mu naqila maa mooy ba nga xam ne taara naaw na farashuha ya xam ne ndaw ya mu ne xam ne tukkee ci yax bu mag ba wala mu tasir te eggut ila dimaax ba ci yor ba mu naqila moom mooy boo xam ne gannaaw ba mu dindee yàpp yaram wa dem na ba laal sax yax ba ba nga xam ne am nay fariñeent yoo xam ne xaw na koo toj ba nga xam ne ko caa laal ba nga xam ne bu ko defee doon faj faaw dina dindi fariñeent yooyu dana dindi yax yu ndaw yooyu njëkk war ko mën a faj loolu mooy jam-jam mu naqila kooku nag waaye taxul na ma àgg ci wér gi moom kooku moom mu naqila waxal ne la ci waroon wa maa loo xam ne wasala àgg na ilayhi ba ci yór ga fa hiya moom ma amoomatu mooy jam-jam ma amooma moom foofu yaa nekk na ci moom suñu suddiyeeti ceerub diye ndax bu fekkee ne weesu na yax yaram bi toj na yax bi ba àgg ci yor ba waaw kooku na moom la ñu wooye ma amooma kooku na foofu fekk day nekk ci bépp mbaa cib jë waaye moom suñu suddiye moo cee war ku ko def nit suñu suddiye moo cee war suñu suddiye mooy jiddee boo ko defee ñett xaaj benn xaaj ba wa kazalika naka noonu al jaayifa tu jaayifa ba tey jam-jamu jaayifa it suñu suddiye moo cee war jam-jamu jaayifa nag moom foog fekk day nekk ci gannaaw wala ci biir moom nag mooy boo xam daa sar ba ci biir ba dañ ko jam rek ci gannaaw mbaa ñu jam ko ci biir mu sar ba dugg ci biir waaye kooku moom itam suñu suddee moo ci war walay sa fii ma bonal moo di xati dir muy nekk ci lu yées jam-jam moo di xa ilal ijtihaaru ndari farlu attekat bi nee nag bépp xaañ-xaañ boo xam ne àggul ci yax bay feeñ rek moom téere bi ci wax dara attekat bi moom moo xool rek seet la ci jaanu mu wax nañ ci fay nangam naan kooku tey ko di bëgg kooku teyee sax ñu fayu ci moom waaye bu fekkee tey ko nag àttekat bi mooy xool ne nañ ci fay nangam waaye téere moom du ci wax dara wa kazalika naka noonu fii jiraaxil jasadi ci mboolem jam-jam yaram yi mboolem jam-jam yaram ji des tam te téere bi waxu ci dara àttekat bare moom mooy xool lam ci wax rek ñu def ko waaye ministre am beneen delluwaay mooy boobu ci àttekat bi rek la ñu mën a xamee la ciy war wala yu xamu deful diyaal juruxun ab jam-jam illaa ba'dal bur'i dara ci gannaaw wér ga nee na bu kenn jamee kenn nag duñ ko wax ne ko fayal li ci war fi saasa ndax da moom xamuñu ba xam kooku day faatoom déet ndax bu kooku faatoo bakkan lay gàddu du yem rek ci gàddu gaañu gaañu waaw dañuy bàyyi ba kooku wér kooku wéree nag ñu doon ko wax ne ko fayal li ci yoon wax wala loo xam ne bari aw wér na xalaa xëyri shay ni njumul ak ñaaw mimmaa ci la nga xam ne boonal moo di xeeti nekk na di wees jam-jamu moo di xa falaasee di dara fii di ca nekk nee na nag bu fekkee gaañ bi ko gaañu moom wax ba sax feeñutoon te it tegu ko woon boole ci wér na itam te kenn mënu koo xam ne ci yaramam deful ab ñaaw-ñaaw nekk nekk ab liggéey mbaa dara moomu benn ñaaw-ñaaw kon nee na ka defal loolu des ko des ko topp dara des ko wax dara yar sax des ko ko def waaw mu des nag bu fekkee moo ko teyoon maanaam jam-jam moom ko jam amul ci yax bay feeñ waaye nag moo ko tey kat boole ci kooku moom daañu ko yar ndax boo liggéeyee may jékki-jékki tooñ nit waaye ndegam moom ñaawul deful dara te wér na rek moom amul luñ ciy fay mu des nag bu fekkee wér na waaye ñaaw na maanaam wér na waaye des na léegit kooku moom dana am lu ci wax dañuy seet bu fekkoon tey ci misaal dañuy ab jaam dañuy xayma bañ ko jamatoon fa njëg war a toll xayma léegi biñ ko jamee nag fa njëg war a toll waaye fi ñu ko jamee ba mu des ba mu des ab léegi koroñ jaay léegi fi njëg war a toll mel nañu ne moom de bu bu ëmbutoon léegi bi dañ koy jaay tey mu dib jaam dana war a jar fukki junni ñu ne waaw léegi bu amee léegi bi ñu ne ah kon de xëy na dina mën a am juróom-ñaar su boobaa kon def diggante bi mooy ñetti junni kon ki defoon xaañ xaañ boobu ñetti junni lay fay kooku xaañ kooku xaañ xaañ boobu ñetti junni la koy fay bu fekkee nag moom yoon waxoon na ca loolu dara nag ne xaañ-xaañ bi nag ma ci war nag kooku moom bu fekkoon ne wér na te dara méttiwu ci dara ñaawu ci it waaw du tee moom mu fay loola da nga xas na ko xaañ xaañ-xaañ ba demee nàngam rek boo xam ne téere bi wax na ci ba noppi rek moom doonte téye ko wér na it te ñaawu ci du tee mu fay loola moom foo fi jiraax yi nekk na ci jam-jam yi alxisaasu fayantoo fil xam di ci tey la ñuy fayantoo bakkan rek la ñuy fayantoo gaañu jam-jam yi bépp jam-jam boo xam mën nañ koo fay ci ka ko def léegi moo ko tey mën nañoo fay ci moom te bakkanam du dem rek ndax daal wax ne boo ko fayantoo xëy na koo ko faatu yooyu lay bëgg a wax moom deesu ko fayantoo mooy illaa fil mataalifi dara ci sànkukaay yi bakkan yi sànkukaay yi bakkan yi mooy li nga xam ne kee def na ko kee te kee deewut te boo wëlbati ko bëgg fay ci moom mu amaana mu far dee mislu maamoo ma timal ne jam-jamu maamoo nga jam-jamu maamoo ma mooy jam-jam ba tegoon yax ba ba jàll ci wér ga wal jaayi fa ci ak jaayi fa nga jaayi fa mooy dañu daan def ci biir ba ci gannaaw te muy sar ba dugg ci wàgg ci biir yooyu kenn du ko fayantoo wala mu naqila ci ak mu naqila mu naqila it waxaan nañ ko wala faxi si ab dagg ab lupp wala um fa yéen ak yaari waa yàlla wa suuf bi ak ndigg wala naw bi ak ndorog moom foofu kulli zalika nekk na ci mboolem loolu addiyatu diya nee na mboolem yi nga xam ne xëy na ku ko jéem a fay ji ki ko def moo ko tey sax waaye ku jéem a fay ci moom xëy na moom mu farfaatu ba kanam des ca dañ ko wax ne ko fayal diya rek léegi tañ bañ a fay ci yow ndax ndegam kee moom defut yàlla baax na moom mi maanaam ñu fay ci moom far dee loolu warut kon na fay dee rek wala taxmilu du yenu alxaqibatu jir ga pàppal xam ne rayu tey maanaam nag bu fekkee ne ki rey moom moo tey rey ga moom bu fekkee fay luñ ci moom xam ne diye lay joxe kon diye ji moom dong moo koy fay waaye fan ba mu bokkoon luñ ci yenu dara dañ ko ci gàdduli dara moom rek mooy fay lépp wala atiraafan du caagee na tudd bi ñu ca rey ga bu fekkee itam la saxal rey ga mooy kooku moo wax ne man maa rey bu nga xamutoon ku rey diw mu ne man maa ko rey ñu wax wax ma ànd sagoom ànd taw bokkam ne moom moo ko rey ñu topp ko diye war ca kooku bu fekkee ne buñ fay ci woo nga xam ne diye ji war moom rek mooy fay diye ci waaye foofu ba mbokk mi ñu ko fay dara wa taxmil dana yenn moom giir gi min jiraahil xata yi ci jam-jami tawee fu maa loo xam ne kaala nekk na xadara sulusi di kem ceer ba fa ak fara topp lu ko ëpp nee nag bu fekkee ka def karey bakkan ba mbaa ka gaañ gaañ gaañ ba téye ko xam ne alal rek moo ci war waaw su boobaa kon day mel ne kenn ci famille ba mu bokkul rek ñu bokk ko fay famille ba mu bokkul ñoom ñëpp la ñuy seet rek kenn ku nekk fay dara ñoo koy fay ba mat day mel ne kenn ci ñoom rek ndax téye ko bu kenn defoon ci famille ba it moom da ci ànd fay la ko noonu moo tax lépp lu mat ceeru diye nag mbaa mu ëpp ko ba ci diye ju mat noonu lañ koy def moom ma ànd famille ba kenn ku nekk def ñu fay ko wama loo xam ne kaala nekk na doona sulusi diye suusu diye doona sulusi foofu yi maa yi jaay ñu nekk na ci alal yi aju tooñ ja bu fekkee nag moom bu seetee lañ ca war a fay matul sax ceeru diye kon moom mi nga xam ne moo def yëf yi rek moom dong mooy fay waaye famille ba duñ ko fay de waaye amal ma amoomatu daal ma amooma wal jaayi fa ak jaayi fa xam dañ ci tey fa xaala wax ne maalikun maalik ne daalika loolu xalal xaqilati war na gir ga waxaala mu dal waxaat ne aydan ba tey inna daalika naka loolu fi maalihi nekk na ci alalam illaa an yakkoon dara wala fa nekk xadiman di aji ñàkk fa taxmiluhu te ko yenu alxaqilatu gir ga li annahuma ngir naka ñoom ñaar laa yuqaadu deeful fayantoo min xam di ximaa ci seenu tey lu mel ne jam-jamu maamu mag jaayi fa nga xam ne kenn du ko fayantoo donte ko waa ko tey ndax nee nañu woon amaana ñu fay ci moom mu far dee yooyu moom nee na maal disa wax ñaari wax daa am fu waxee ne day ànd ak gir ga fay ko te say boo jàpp jooju wax loolu ñu sukkandikoo mooy day ànd ak gir ga fay ko meen wax ba ne moom rek na ko fay lu may daa ñàkk bu ñàkkee nag say boo gir ga fable ko ndax ndegam kii tooñ nañ ko tooñ boo xam ne néewatu fayu ndax buñ ko fayoo xëy na moom mi ko defoon far dee ba mu wax ne dee su ko fayu su ñàkkee it mënta fay su ko gir ga fayluwut kañu tooñ day gaañ ñaari yoon day ñàkk ñaari yoon kon nag waaye jàppale ko wax bu njëkk bi mooy moo fam bi rek ñu ànd fay ko moo xam ñàkk la moo xam ñàkkut wa kazalika naka noonu maa lépp loo xam ne balaxa jot na suñu sat diye ci suñu sub diye min maa ci la nga xam ne laa yuqaadu déeful fayantoo min fu ci moom li ànd fa ngir naka moom mutulifun day aji sànk bakkan moom nee na yemul rek ci maamoom ak jaay ba lépp loo xam ne lañ ca war a fay mat na ceerub diya waaye ku ko def nit duñ ko fayu ceew ndax bañ bi la ko defee ni nga ko defee woon yow nga far faatu te kenn mu faatuwut yépp nee na lu jur ga ànd ki ko def ñu fay rek kooku alal ndax kooku bañ a ñàkk ñaari yoon wala taaqilu du diwal alxaqilatu jur ga man ka nga xam ne xatala roy na nafsahu boppam xam nañ ci tey aw xataan wala ci njuumte koo xam ne moo roy boppam moo xam daa xaru xaru mooy mu tey ko moo xam dafa juum ni ki mu doon dëbb rek fetal bi rëcc dal ko mu nga faatu kon moo roy boppam yooyu yëpp moom dañu xam ne dogal bi yàlla ñëw na waaye kenn dajale alal di ko jox ñu gën a jege ci mbokkam mooy kenn bu wax ne na fam na jur gi dajale alal jox mbokkam yëpp gën a jege dañu bàyyi noonu rek xam ne dogal bi ñëw na watu xaaqilu dina yemonte ci diye almaratu jigéen a rajulu góor ila sulusi diyet fi rajuli ba ci sulusub diye góor fa isa balaxat xaa ndem jot na ko rek rajaxat mu dellu ila xaqliha jëm ci diyaan xam nga dangaa waxoon ne jigéen la góor di am jigéen moom xaaj bi lay am mu ne la lool nag buñ tëb tëb def ko li fekk nga tub sulusub diye góor rek ñoom ñaar ñoo yemle la ngay jox góor ga la ngay jox jigéen ja ci misaal da nga ne woon ko dagg benn baaraam fukki gëloo ma ci war kon jàppal ne mu dagg baaraamu jigéen ak mu dagg baaraamu góor ñoo yemoo nga xam nga fukki gëloo matul ceerub diye ba tey jàppal ne kon ñaari baaraam yi mu daggal ko góor ak mu daggal ko jigéen ñoo yemoo lu ci mën doon day doon ñaar fukki gëleem ba tey ñetti baaraam ñoo ci yemoo ndax ba tey mu dagg ceerub diye kon mu daggal góor ñetti baaraam ak mu daggal jigéen ñetti baaraam ñoo yemoo kenn ku ci nekk da koy jox fanweeri gëleem fi ñu fi ñuy sàqalikoo nag mooy bu dagaloon jigéen ji ñeenti baaraam xam nga bu dagaloon jigéen ñeenti baaraam bu doon góor moom ñeent fukk lay doon waaye léegi xam nga ñeent fukk mat na suñu suuf dee bopp ko ndax xam nga téeméer moom mooy dee ji ab ceeram nag xam nga moo fanweer ak ñett ak xaaj léegi nag ñeent fukk moom xam nga ne ëpp na sax suñu suuf dee kon jàppal ne bu dagalee jigéen ñeenti baaraam da koy wax rek ñaar fukk gëleem mu daal doon xaaj yëpp la war a jox góor ga waaye ba keroog ñu mat suñu suuf dee góor nag moom la ngay jox jigéen ak la ngay jox góor ñoo rek woon na fa kuréel ba yaqtaloona mbir ma dinañu rey rajulan waay fa innahum naka ñoom yuqtaloona def na leen rey bi ñu ca rey waa joojee dafa wax ni mbooloo bu ñu reyee góor mbaa jigéen te rey ga nag rey complot waaw su boobaa kon ñoom yëpp la ñu rey bu fekkoon mu far dee su boobaa nañ ko weesu woon ci gannaaw kenn rek la ñu mën a rey ci fayantoo te day aajo mbokk yi ka ñu rey waa juróom fukki ngiñ ñi ci des nag kenn ku ne ñu dóor la téeméeri yar tëj la mat nga dolli ci nag was sak raam aju mandi in xatala ndem rey na xuti la kon reyeef ko ko xam daa mandi mandi gu araam bu reyee nit ñu fayantoo ci moom rey ko ndax mandi ko moo ko teg boppam mën naa bañ naan luy màndal bay mandi su fekkoon ne la mu màndee nag lu mu tey ni ki naan am soom mu am doole wala garabu tubaab rek mu màndal ko ci teyu ko bu reyee itam kon boobu ñàkk tey ñooyemoo wa in xatala ndem rey na majnuunun ab dof rajulan waaye fa diyatu kon diyee ja ala xaqidati yi war na giiram nga ab dof bu reyoon nit itam du tax ñu fayu ci moom dañuy daal di seet ak famem rek ñu fay déeja waaye kenn du ko fay ci moom waxam du sabi tey gone kal xata yi mi ngi mel ni tayeeful te wa dalika loolee xalaa xaqilat yi war na giram nga in kaana dem nekk na sulu sa diyet yi di sulu sub dee fa ak sara topp lu ko ëpp wa illaa ndeen nekk na sulu sub dee fa fii naa li nekk na ci alal boobu loolu moom juróom ñoo koy bokk fay bu tolloon toll goo xam ne la ko war mat na ci yaru dee ba tey moo fayoon ñoo ko bokk fay bu fekkee la ci war matul ceeru biir muy xale bi dong ñoo ko fay ci alalam bu amee alal boobu ay ñu topp kooku ba kay mu koy am wa tuqtalu def na rey almaratu jigéen bi rajulu ci rey góor bi rajulu daal yu rey góor bi saa ci rey jigéen bu wokk tax si def na fayantoo li ba adi ñeel lenn seen min ba adi ci lenn si jiraas si jamjam ya dafa wax ne fayantoo gi moom cee doon góor seen jigéen moom du ci wàññi dara moom fekkoo ne jigéen rey góor ñu rey ko fekkoo ne góor rey jigéen ba tey ñu fay ko fay ci daal di ko rey buñ jamante itam kee doon góor kee doon jigéen di yàq fayantoo ba dañu ki jam moo tay rek dooras na ko fay rek waa ñu fay ci moom moo xam góor gaa moo xam jigéen gaa wala waxtu na defu rey xurruñ gor bu xam duñ ci rey jaam bo waxtu na def na rey ak xam du jaam ba bu ñu ci rey gor
moom borom jaam noo leen tudd waaye nag bul fàtte jaam ci lislaam jaam ci lislaam mooy koo xam ne moom ab yéefar lislaam moo ko ci nekk kay tëj dugg ci lislaam mu dem lislaam ne ko saxal ci sa diine day jox waa lislaam galab dañ bàyyi la ci loolu ñu bañ ñoom bëtt bi xeexal ñoom ba jàpp ko nag loolu mooy jaam dëgg dugg ci lislaam loolu man fii ci réew yi moom ak ëpp doole rek la waaye yoon jot bañ jaam dina leen nag moom buñ ko yemalee ki nga xam ne Mustafa lislaam Mustafa ko muy gox kooku nag bu fekkee ne kon ngor seeray jaam bi loolu la waxoon day fay rek xëy na jaam ba noppi nag moom ngor si ñu dóor ko téeméer yar tëj ko nag waaye kenn du fay jiwoo dafa fekkoon ne jaam bi moo rey ngor si nag moom li may rey jaam bi ndax xam naa ki rey ko ëpp doole ki rey ko ëpp daraja kon ñoom daal ko rey muy jaam ba wala waxtaan boo fi rey muslim ak julit bu kaafirin sawu rey yéefar te waxtaan boo fi rey ay kaafiri yéefar bi bi si ci rey jëli jël wax na bu fekkee ne julit moo rey yéefar moom xam nga ne julit dinaa la yéefar kon nag day fay rek jiw ja dañ koy fay jiw rek waaye kenn rey jëli ji ko defee nag yéefar moom bu fekkoon ne moo rey julit bi nag moom daañu rey moom ñu faat si la ñëw rek buñ diw rey na nit ba tey ko ni la ko waxee woon bu war ko fay ci yow itam daal ñu ko dóor téeméer yar tëj ko bat ni la ko waxee woon ndax bakkan dafa diis ñu boole ñu mañ ko defati wala ci saa si dootu fayante day na xor diggante gor ba xam ne ak jaam sa jërëfin ci jam jam
maanaam góor wala jaam bu ci kenn ka jamee moroom ma du tax fayantoo am ndax dañuy jàpp ne dereti gor si nawloonti wut ak dereti jaam bi kon koo ci xam ne jam nga sa moroom dañuy seet la nga xam ne moo ci war rek ñu fay ko ci jam-jam ba waaye kenn du ko fayantoo ci seen diggante ñoom ñaar ba tey wala bay na muslimin du jeegeenu diggante ab julit wa kaafirin akub yéefar ba tey julit ak yéefar dañuy jàpp ne amuñu nawlante ci deret ci wàllu jam-jam nga xam ne bu fekkoon ne kenn ki jam na moroom ma ñu seet ba xam la mu ko def bu fekkee am na lu ca téere bi rëdd kooko fay loola bu fekkee téere bi rëddu ci dara àttekat bi daal di àtte loola kon yemale wuñu jam-jam bi ak bakkan bi ndax bu fekkoon ne tey yéefar bi moom moo reyoon jullit bi kon moom des na rey yéefar ba ndax jullit bee ko féete kaw waxaan nga nag ne bu fekkoon jullit bi moom moo rey yéefar ba itam day fay diyee ba noppi rek ñu dóor ko téeméeri yar tëj ko at waaye kenn du fayu ci moom jullit bi ndax moo ëpp daraja yéefar bi mooy nawlante wuñu daal wasaa'iqu aji màng ja mooy ki jiital daaba ji wal qaa'idu ak aji womat ja mooy ka jiitu womat daaba ji daaba ji topp ci gannaawam war raakibu ak aji war ja ñoo ñëpp daami noona way gàddu lañu limaa ñeel la nga xam ne wati at dëgg na ko at daabatu daaba ja xam ne na ki nga xam ne mooy jiital daaba ji topp ji ak ki ko womat ak ki ci war a ñoo ci yemoo loo xam ne daaba ji da koo dëgg rek yàq ko rek waaw loola kookaa ko war a fay ndax dañuy jàpp ne war nañ koo mën a téye ba du yàq loolee wamaa loo xam ne nag kaana nekk na min xaa tukkee ci daaba ja min xayri fi alihim ci dul seen jëf aw waxiya wala nga xam ne moom daaba ja waaqifatan aji taxaw la li xayri shay in ñeel lu dul dara foo añ la loolu defeef na ko bixaa ca moom fa dalika kon loolee xadarun neen la nee na bu fekkoon ne nag daaba ji dafa yàq loo xam ne borom mënu ci woon dara niki la mu yàq da ko yàq ci geenam wala mu màtt ko ci gimiñam wala mu fimaju ko ci boppam waaye daaba ji kenn xamee ko woon loola bay wax ne mënees na koo moytu ndax xamal nañ ko ci moom te nga xam ne itam kawre daaba ji mënu ci dara waaw mënutoon a fegu loola biit moom moo ko cuut ab yar wala moo ko def dara ba tax daaba ji def loola xam ne lii daal moom daaba jee ko def te mëneesu ci tuumaal borom ne ko yaa ko def ba mën nga koo moytu waaw li mel noonu dañuy jàpp ne moom tëngaal nga jëm ci moom na muñu rek waaw te xam ne jëf yi bahima moom nen la maanaam jëf yi bahima moom bahima xamul dara kon kooku na muñu rek waaye nag bu fekkoon ne daaba ji xame woon nañ ko ne moom day màtt borom daal di koy yeew ci buntu jàkk ja wala ca ca marché ba fekk na moo xaman koy xaman nañ ko ci ndey màtti mbaa day wëqi mbaa nangam yooyu jamono bu fekkee ne yeew na ko wala mu bàyyi ko foo xam ne mën naa gaañ kenn bu gaañee kenn faaw rek moom mooy fay ndax bu dee màtt daa war a def dara ci gémmiñ nga ba du màtt kenn bu dee wëqi daa war a tënk tànk yi wala mu jatan ko ba nga xamee ne du mën a yàq kenn léegi jamono nag kon bu deful loolu kon moom da mooy daal di war a fay moo gàddu loolee daa bañ a def waaye nag lépp loo xam ne mënu ci dara rek xamuñu ko woon ca daa bañ neen nga ngaa nga lu muy def moom daa bañ te mënu ci woon dara moom borom rek dañuy jàpp ne loola neen la wama loo xam ne maata doona fi bi inan ci teen aw ma adun wala mbell man xëyri fiixli ahadin man xëyri fiixli ahadin ci lu jëfi kenn saxoo moom xabaru neen la nee na lu dee ci teen wala ci mbell mbell mooy lu mu ne kan nii dafa wurus ba xaalis ni ki nga am na teen di ko gas loo kenn ne ko gasal ma ko ma fay la di ko gas nag far teen bu màbb ci kawam mu far ci xaatu wala nga am suñu def wurus ba xaalis di ko def loo kenn di ko fay di def lu yàgg far tan na tàkk sawara ci moom mbaam màbb ci kaw rek far ñu far ko faatu mais lépp dañ la wax ne yow mi ko doon def loo teen bi mbaa yow mi doon def lu mbell bi yaay fay ñu jàpp ne loolu dogal baa ñëw rek
waatu na jëmu def na biddiwal biddiwal mooy def na àppal rek def na def ay bot ak ay àpp addiyatu dieja alal xaaqilati mu war giir ga fii salaasi sini na ci ñetti at yeneen bu fekkee ne ka tooñ moo ko famille ba mu bokk dañoo war a bokk fay diye duñ leen ko fayloo fi saasa yu saasa dañ leen ci koy sàkkal ñetti at ngir ñu fay ko ci ngir ñu fay ci diye ji wa sulusuha sulusub diye fii sanati nekk na ci menn at wa nisluha genn wàllu diye fii sanatay ni nekk na ci ñaari at ah nee na loo xam ne la ca war mat na sulusub diye des na may kooku lu toll ni at ngir mu fay ko ca loo xam ne nag la ca war mat na genn wàllu diya moom des na ca àppal ka mu war ñaari at lañ koy may ngir mu fay ko wa diyatu diya ji nag mawroo satul lu ñu doon la xalal faraidi ci kem masalay miraas nee na diya buñ ko joxee des koy miraas ni nga xam ne moom la ñuy miraas ci neen alal ju bokkut ak jooja da nga jàng ci kanam na buntu miraas mi nga xam ne moom la ñuy doon ne mu ne la diye it moom rek lañ koy doon ne wa fi janinil xurrati nekk na ci mbéymurum gor su jigéen mbéymur mooy ëmb ba rek xurratun aw tànneef te moo di xab dun jaam bu góor aw walidatun wala ab jébéer tu xawamu bépp def na ko xayma bi xam si na ci juróom fukk dinaaroon ci dinaar aw sitti mi ati dirhamin wala juróom benni téeméeri dërëm dafa wax ne gor su jigéen ku yàq ab ëmbam war nga koo fay jàmbu góor wala jàmbu jigéen boo xam ne buñ ko dee xayma xayma ca mat juróom fukki dinaar mbaa juróom benn téeméeri dërëm watu rasutu def na ko doon it xalaa kitaabillahi ci kaw téereb yàlla ba maanaam li nga xam ne moom la ñuy miraase alal jeneen rek ba tey moom la ñuy miraase loolu ñu jox jigéen ji nga xam ne dañoo yàqub ëmbam day mel ne doomam faatu woon nañ ko war a miraase rek noonu la ñuy miraase loolu ñu ko jox waaye ku mu soob itam nag nga seet ndey ji ci boppam lan mooy diyaam maanaam bu doon ndey ji ci boppam lu diyaam di toll bu ñu ko defee fukki xaaj moom yàq ab ëmbam fukki xaaj yooyu mu joxe ci benn waaw ku def diyee ndey ji fukki xaaj daal bu ko neexee moom yàq ëmb jigéen ji mu daal di koy fay benn xaaj ci fukki yooyee maanaam fukkeelu diyee daal fukkeelu diyee ndey ji mu fay ko nekk muy kee goo xam ne muy wurus ak xaalis muy wurus baa xaalis boo xam day teew fa saasay saasa
wala wala yarisu du doon baatani fam di ajira yi tey mën naa yu ci alal wala biye tam di caajooni biye mais nag boo xam ne daa rew yit te tey ba bu fekkee waroon na koo doon itam moom bu fekkee rew yit du tax moom mu doon na ko ci genn wet du doon na ci alal jëm bàyyi du doon ci biye jëmu joxe bu dee joxe biye dafa nga wax ne ko da ngaa yàkkamte woon alalam bi ba tax nga rew ko nag da ngay xam alal yi وقاتل القطي أجري تيفل يرث ذنبا من المال أو يبيع دية من الدية فكر جم كري تيكون دية جم جهنم تبون وعي على الكيس جمين جم تبون وفي جميل الأمة نكنا تنبي مرم جدير من سيدها تكيج أبسنغم مالا وخلنا في جميل الحرة نكنا تنبي مرم أصبر في جيان ولا بفكر فواق أمبد ab jaam bi jigéen da ngay dëgg kat jaam la waaye ab sangam moo ko ëmbaloon mais que mooy jaam bi moo ko ëmbal kooku moom nee na lam daa fay ci bu yàqee amul góor rek ba tey lay fay noo tolloo walañ kaa ne doon nekk na mun xëy yi tukkee ci kuréel moom aussi yi te nekk na ci moom xus yi xiimati saa fukk yi nag xëy na yaayam da bu fekkee am bu yàq am bu jàmm jigéen la te jàmm jigéen bi kat amoo ko ci sangam benn mu amee ko ci jëkkër mbaa ci njaaloo waaye daal ak sangam moom jiwu amul bu neen dañuy seet jumtuwaay bi ci boppam ku doon seet xëy na ni muy toll xëy na boo ko fee fukki xaaj benn ba nag muy asaka la waaw loolu la ñuy xëy ci amoon nañu yàq te ëmb bi bàyyi ko ci sangam xanaa bàyyi ko ci jëkkër mbaa njaaloo ومن قتل كري حبا أبجان فحاله ورنك قيمته قيمات ولو كو خم رين أبجان دي شوت جامب بنكو خيما ما خيما ورطول بخيم ولا رك waaye ndegam moom as war la kenn du ko rey ndax moo man tey jàmb wax ne nag jàmb dëgg dëgg ci islam la ci jàmb la ci islam jëm la ci bëgg ngay jàmb bu toqtalu def na ay janaaxatu mbooloo bu waaye di ci rey kenn loŋ fi xiraabati ci bëggoo wala fi wati ak yong wa in wali ak doon taw mëngoo woon alxat la rey ba bax duhum la nit ñoom wala mbooloo bu reyee kenn reyuk adukal ba adukal ba mooy tëru ko foo xam ne du waxoo kenn du ko dégg ñu jàpp ko rey ko yong nag mooy tëru mooy barey ko ngir jël alalam bàyyi dama noonu ni ki ñu def xeet loxo réew dag ay wetteeg defe na ñoo ñooñu moom xam xam la ñala islam da ci àtte àtte bu dëgër te wax ndax loolu boo ko boo ko dindul rek suuf si ni mu yaatu yaatu mu àdduna day mujj xat ci ñëpp xam nga ne ndax ni la ko waxee woon rek dëkk yi boo dégg ne tey jii ay daggati bopp dugg na fi rek xam nga ne tey jii kenn du nelaw kenn dëkk bi mu yaatu yaatu day xat ci ñëpp moo tax nag mbooloo moo xam ne rey nañ kenn rey ñu nañ rek ñoom ñëpp la ñu rey doon ci sax kenn ko ci rey baa ñaar yi koy ñoom ñëpp la ñu bokk rey boole ci te xam ne rey bi mel noonu bésu baal googu mukk itam وكفارة وكفارة القتل كفارة غري في القطع كتاب واجبة أجوار له تحرق رقبة نجر الجام مؤمنة بأجبا فإن لم يجد دين أمكو فصيام الشهرين كل وريار ور متتابهين يجد اختبا لنوات فريدة كان تتويكو انتو سنت كفارة دقل فح كف تتويكو تلين مهم تيجو تحديث وعد ورمي سنتو كفارة جي تدور تنوم صح kafaara bi nag fekkee jamono jaam amee la day bëreelub jaam te jaam bi nekk julit fekkee nag mënta am jaam bi nag ba ci jamono bi mu toll ba amul njëkk bi jamono gis ba di ko jënd kon day wóor yaari wóor yoo xam ne day sisaloo loolu naru def na ko dugal dugaale ko ci loolee il xof leen dem baaleef na xam xamal ko fi la am di coowu tey maanaam nag bu fekkoon dafa rew nit te tey ko nag fi mu nekk kafaara ba du nekk lu war ci moom lu teel daañu ko sopp ci moom tey bam ko tey nag xam nga dañ moo tax dañ ko war a kafaara waaye tey nañu sopp ko ci yow ndax xam nga ne moom moo gën a dis la ci baatin ndax kee ko tey moom li bakkan gis gis tey ko waaye kii nag moom moo ko tey kon moom mu ne sopp mu def ko moo tax mu naa fa foo moom xëyrum moo gën lu foo ñeel ko ko mu ne daal moo gën wa waqful def na rey ak sin biixu sin biiq wala tuqbal biixu nangu taw ba tuxoo tuwam nga وهو من ألف ما تغفل يغفر ذنبه الكفر الكفر ويظهر تنفيذ الإسلام الإسلام شندق من نانا باخت مام نفن كو خامي تي مام دنج كو ري شندق من نكو خامي دا فاgnal ne ci wal islam la fekk la ëmb ci biir mu ak kofar ko yaqam day bàyyi na xalal lu ci julit ñi julit ñi boole ko ci seen biir ñu xam seeni secret kooku nag bis bu feeñee moom lim tuub tuub dus ko nangu mo nañ ko rew rek
wa kadhalika naka nonu as-sahiru ab jabar manam ko xamne day jabar di soppi ay jëm wala muy tekkale goor ak jigen wala muy tak fexe ba takkan xalaat yu mel noonu yépp xeeti jabar la naañ bu fekkee da koy defee wax joo xam ne day tegtale kéefër di ki wax yi xiram yoo xam ne wax yi kéefër la su boobaa kon ndegam baat yam koy defe baati kéefar la jàpp nañ ne kon loolu kon jabar boobu ak yéefar la kon dees ko atte bi mu wax lañ koy def mooy dañ koy rey wala tuq ba lu tuddee ful nangu taw ba tuxoo tuubam nga su bëggee tuub itam dees ko nangu bu fekkee ne nag nee nañu la nga xam ne moom lay njabare dafa doon loo xam ne baat yi moom aayut ni ki baati alquran la wala baati addis wala beneen yàlla wala yeneen baat yoo xam ne daal baat yu teey la ci lay fexe ba def ci njabar googu kon wax ne ne njabar ga ci bopp njabar gu araam la waaye nag bokkul ci njabar yi nga xam da koy taxa doonub yéewar lu araam la lam cay am itam lu araam la war na ko tuub te bàyyi ko ndax ragal taxaw ëllëg ci kanam boromam waaye ndegam baat yam koy defee moom nekkul baati kéefar daal loolu kon du nekk njabar guy tax ñu ne bi yéefar la ba di ko rey ba yuqtalu def na rey man képp koo xam ne irtadda murtad na illaa an yatooba ndare bu dafa tuub daa wax ne koo xam ne daa murtad murtad mooy génn ci lislaam wax lu ko ci génne gannaaw ba mu doonee julit mbaa jëf lu ko ci génne kooku nee na su fekkee nangu naa tuub delluwaat ci lislaam ñu bàyyi ko waaye bu fekkee nangu ta tuub dees koy rey ndax kenn forcé ko woon ci dugg ci lislaam kon gannaaw ba ci duggee nag ba xam ay secret lislaam ba ba génn nag ne bokkatuma ci loolu dees ko ci bàyyi day nangoo tuub rek bu ko defal ñu rey ko mooy wayu wayu axaru def na ko yeexe li tawbati ngir tuub ga salaasa ñetti fan xanaam daañu ko may ñetti fan ngir mu tuub waaye ñetti fan ñi moom bu ñent bay sox te nangoo ta tuub rek ñu rey ko wa kazalika naka noonu almaratu jigéen ba mu ne man irtadda man ji yóbbaale woon góor a jigéen waaye teewul mu ràññee laal rek ne naka noonu jigéen ba tey moom góor ñoo yemoo koo ci xam ne murtat nga rek loolu mooy àtte bi
wa man lam wartad da koo xam ne murtatut ba aqarrata mu saxal bi salaati ci weeru julli wa qaala te mu wax ne la usalli man duma julli ndax tàyyal rek waxi rek kon yeexeef ko xataa yam li doyul waxtu salaat mu waxtu julli waaxit muy yenn fa in lam yusalliha doon julli ko rek xutula reyeef ko loolu ku tee ku tee la jàng suuf si xaat wala ko saa gis xaat daa wax ne koo xam ne moom man nee na man gëm naa ne julli moom war na te julli laa te gëm naa ne julli war na waaye nag mu nga julli ndax dama tawee la julli tawee rek na ma wutee di julli kooku dañ ko wax ñu naan da ko woo bu waxtu bi jotee xamal ko ne ko julli moom toppul sa sabo ci tawee ak sawar mu mooy si bokk bi al islam rek dafa wàññaan la sabo bu waxtu bi jotee rek nga war koo joox kenn sa man man ñu ne ko yàlla man la wax wax na lay tudd sax ba nooy def da ko ne jullil dafa ko dugal dafa ko dugal ba nga xamee ne waxtu wa daanaka benn rakk sax xaw caa xaj borom woon xam ne mooy mooy wax mooy xaaj bi mujj ci waxtu wa sax ab rakk xamu ca dañ ko bëggoon a julli jàng ci faatiha taxaw joon ñu maanaam dugal cër yi rek doylu ko tuuti rek di ko xaj su boobaa ne moom fala ñu ji yem bu nangoo julli fa saa sa baax na ba ñu wéete julli ñu rey ko wax na ne dañ ko raw raw jotal la mooy téere ñu jàppee ko jullit danañ ko sang danañ ko sang danañ ko jullee danañ ko suul fa armeel jullit ña ñu bokk ña ko war a doon daañu ko doon xanaa rek bu sañoon waa ju baax wala mbooloo mu bari dana ko suyee ak baax nag ilimaan ja jiite bu tee war a ba boobu ñu ko rab bari ñu woyofal ko ndax lu bari da nga may too def li mu def waaye buñ suyee la rab ba ñu baax too fa day mel ne kon deful dara daal di sawar la ñeneen ci def lu mel noonu dama nañ tanaa ku bañ mën a zakaat te asaka uhibat kon jàppee fa asaka bi min ci moom karxin ci forcé buñ gis mu war alal joo xam ne asaka war na ca ñu laaj ko ko mu bañ kooku dañ koy foqal ci ci doole ci biir foqal soo buñ ko ci reyee moom mooy ñàkk bakkanam rek moom la bu ci reyee kenn ñu fayantoo ci moom rey ko wa man taraka ku bàyyi alxaj aj fallaahu kon yàlla xasbuhu doy na ko
maanaam koo xam ne boo ko dee xool day mel ne mën naa aji ndax gisuñu daal ak wérati mbaal ñàkk mbaa dara lu koy tee mën a aji waaye taxul nag mu aji koy dañ koy bàyyi yàlla rek ndax xëy na mu am ngànt ci biir loo xam ne xamee su ko te moom xam na ko ci biiram
faman taraka ku bàyyi asalaata julli jaxdan ngir weddi laxaal ñeel julli fa huwa kon moom kal murtad bi mi ngi nañu aji murtad mustata bu def ñu ko tuubloo salaasan buru ñetti fan fa yi nga njëttuñ doom tuubu rek topp la kon rayal ko maanaam koo xam nag moom daa wax ne man li ma julli sama ñàkk julli yi dug tayeel julli ci boppam laa gëmul ne lu war la kooku dañuy wax ne kon moom bu fekkee dugg na ci islam génn na ci ndax islam moom da ngay nangu lépp mbaa nga bàyyi lépp waaye nangul gëmlee bàyyi lee te julli moom lu wër la ci islam ne moom ci ay ponkam la jëkk ci ay ponkam la ponk islam yi gën a màgg loo soo gëm yàlla julli ci gën a màgg kon bu ko weddee islam yëpp la weddi dañ koy may ñetti fan ci nit yi gëm na julli war na te di ko def fekkee ñetti fan ni lépp na te buñ ci dellu gannaaw rek ñu rey ko kooku nag buñ ko reyee moom raw kéefar la deesu ko sang deesu ko sang deesu ko jullee deesu ko suuti armée julli ña alalam day doon baytimaal waaye ak ay mbokkam duñ ko doon wa man sabba ku ngañ rasulallah yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam kucci la kon reyof ko wala tukkubal te deefu nangu tawbatuhu ak tuubam dana ko ngañ yonente bi woon dana pour mu kàllaf ñu koy rey rek bu liggéey tuubitam duñu nangu wa man sabba ku ngañ min ahli sunnati ci ñu yàlla te foofu naa ci lu la nga xam ne kafara weddee na ko dañu ci moom aw sàbb wala mu nga ñu allah yàlla xam sa tedd na yàlla tamit màgg te foofu naa ci lu la nga xam ne kafara weddee na ko dañu ci moom tuuti la kon nga yef ko ahlu sunna ñu yëlëre mooy yëwët ba nasaraan yi nga xam ne ñoo fasal ñu yëlëre bàyyi leen ci seen diine ñu bàyyi lislaam tasaaroo ba ñu joxe rek galag dañ leen a laal ñu ne koo ci xam ne xas na yonante bi te lam ko wax lu wes la bokkut lam daan wax te bàyyi ko ja waaw am na lam daan wax ci yonante bi ne kii yonante yonante arab arab arab rek la yónni ko dund loolu bu teewee desu ko rey ndax daañu ko dégg ci ñun te teewul ñu fasal yàlla rek waaye bu ko weesoo nag li ki mu yonante bi di boole sax far rek benn yoon dàq yonante bu wër a wër su boobaa ñu rek ko ci xam ne itam yedd nga yàlla ci lu bokk te lañ déggoon nga yaa ko wax nga wax leen lu yees ni ki xam nga nga faral mi lay wax ne ñett yàlla moom loolu dégg nañ ko alxuraan nekk na ci foofu ñu fasal yàlla rek kon bu yemee ci loola desu ko rey waaye bu weesoo loolu wax na lu bokk toon ci ñu yalla dal leetut yalla leetut loolu wala xas na yees su boobaa kon moom dañ koy rewet xanaa ndax mën a ngoo tuub kooku nag bu ñu gënee ci islam moom ñu bàyyi ko mooy illaa ñees li ma dara dafa ngoo tuub donc nga xam ne yéefar la ñu xawal rek lam xas yàlla bàyyi leen tey bu fekkee nangu naa tuub ñëw ci islam rek ñu bàyyi ko bu ñu rew na ci andi illaa ñees li ma وميراث المرتد بلد أج مرتد لجماعة المسلمين من يلن دولم جلدي بنا رك با مرتد بنا ري برك خمالنا ألالم أين بوكم بيك دون بيدم كي بيت مال رك بيت يب ينش والمحارب أج رقونك رقوني أبو قلبه تحيكين جدي جدي كنك di japp nit ñi foo xam ne ñii bu ñu waxoo kan di ko dégg ko defee nag nangu seen alal bare leen loolu muy éducal la kooku laa xam fee jépp bal fi ñu nek ci mom iva bëfla nga jappé wax na dañu ci mom da lay ko defé bu la jappé bu la bal mukk faaw ñaawal la yoon fa in qatala man rawan ahadan kenn fala bu nga mën ñak min qatala ci rawan fekki ad ad kal tu ngoo mat ci ray kenn faaw ñu ray ko mën ñak wa in lam waqtu mom rawan kenn nak dal xaqtale ko ñu alal rek fa wasax kon dama yaatal al iman iman bi fi ci mom ittihadahu ak farlan bi xabru bi ni ci ak toñu وكثرة مقاله البارك فهمنا في فساده في يقم لما نصر كان مو إلما لي وحنا كفات الوالي تجاده ngay seet bu ko tàmbalee defal léegi ak lim ci sawit ci ay nit ak lim ci yàq bu ñu lay seetee ne ñu wax ban la ci def fa imma qatalahu ban mu rey ko njëkk mooy bu seetee ne jëkk jëkk rey ko rek moo ci jaar bu sawee mu def loolu ñu doon kenn waaye mën naa seet mu rey ci war mu jëkk jëkk rey ko aw salabahu wala mu salab ko suma qatalahu tok mu do ko rey salab moy yow ko marale ko garab ñu mëna ko yow marale garab ba ko ñu tor ko rey xam nga ci jëk rey ko ay da ko jëk yow nonu ci garab ko do ko ko rey suma aw aw qatalahu wala mu koy dag min khilafin ci biyele dag ci biyele moy dag waxum do jor ba ak tanku jagul ba xamni do ak biyele la lolu ba tay bu ko fetlo ni mo ci jabu ñu def lolu amoon fi wala bu koy dàq dam boobu wax na bu ko lay def day daj dagg ci dagg ci jiyale mooy day dagg loxob ndeyjoor bi ca tikku jara ba dagg tànkub càmmooñ ba ca dëdar ba amoon fi wala bu koy dàq dinaa ba leen bët bët ci ab dëkk gis ci ne bu def na ko tëj xaaj ci yéen xataa watoo ba mu tëj buñ jëne dakku lu bu ko doon dëkk dëkk bu ko ñu tukk bu sol mu do ko ubbi lola ci jabu ba tagu def lola ibn dalé mo ci set fa in lam yaqdar bil atni hut halu ci ñu hatta jabu mu dikkal ko fum bay do mbir mi ubbi ko ñu def ko ci to xam ñu ko ku mu haq jëf ak do xam ni ko do billahi ñu yalla ñu faale ko ci lolé wa umu fa jabu ko bu ko xina ci ak nit ñi ñu mal ci alal fa da ñu la borom kooku daa di kalbe bu fekkee jot ñu moo jekk ba jàpp ko moom moo sori bopp rek nee na man tuub naa la ma daan def lépp bàyyi naa ko fas naa yéene tuub dellu ci wóor bi kooku dañuy seet loo ci xam ne sal sal nañ ko koo def te fekk na ñoom defu ko woon kenn ni ko rey bi xam nga fi mosoon naa jekk jekk rey ko moom ci réew kenn ni ko waxee léegi kon mos naa dund loolu teggal ko ndax loolu ak yàlla yi mos naa ko teggal ñu seet nag lim ma sa def nit moom daañu ko fay lit kooku bu dee ku ma fa dëgg ak cër ba ko mësa def ay laaj ba ko mësa def dara lolou fay ñu fay ñu ko ko waaye loo xam ne wante ñu ko def na ci defu ko kenn moom ñu ko rew rew ñu ko dal di tegul ndax ñoo ñu tuul ñoom ko ku ñu waxi dañ kenn ku ne ñu mën ñu xew ci sàcc yi daa wax sàcc yi rek waaye adukal ko ñu ko taa di wax kooku nga xam ne solo boo ko rëkki nañ ko wala am waali ca yaram dafa wax ne addukal yi moom add addukalité yi moom buñ ci jàppee kenn rek da fekk ñuy mbooloo ñu ci ñaar baalu ko moom la ñu jàpp nañ ñëpp moom léegi day fa day fayaale mboolem ñoo ñooñu jëpput moom nañ ci jàpp na fayaale ñooñu ñooñu rek ñëpp lañ jàpp ko dee moom mooy fayaale jëpp ay joo xam ne daa mën ay moroom ñu nangu ko ci ay jaamu rek moom na fay wa taqtalu def na rey ak jamaahatu mbooloo bu waaxi di ci rey kenn fil xiraabati ci dëggoo wal xiinati ak yong wa in wali ak doonte méngoo woon na alxat la rey ba waaxidin kenn mu fi ci yoon xam nga ne kooku bàyyi wóor la te na mu ko waxee woon rek la ko waxaate wax ne la itam maanaam ak lañ ci jublu ci lañ koy bàyyi wa yaqtalu def na rey almuslim ak julit bi xatt zunni yi ci reyit ku ñu fas loolee xatt la xiinati rawu yong aw xiraabat la leeru góor wax nga ñu raw yong ak raw addu kalbe dafa di yaar ñaaw ba noppi mën xatal adduna ci ba tax na ak julit bi ñuy màgg màgg fa yàlla bu ko defee ak yéefar bi fa wala rek la ko ko doon ñu yéefar te ñu ko muy julit bi ndax na ñu ko rawee raw yong ba addu kalbe ne wala tax ñu ray ko bu doon raw bu ñu googu rek moom wax nga ñu la kenn raw julit ci raw yéefar ndax moo ci daraja yéefar wala ñu fa naa ko jaaloo nit xurul te mu di gor muhsanin ku di ko nit sa ñëwul dafa bu nekkoon jamees ko xataa yow moota ba mu faatu dina koo xam ne njaaloo na tey góor du fekk mu sa ñëw daañu wax lii sa ñëw kon àtte mooy rey rey gi nag mooy dañu jël ay doj yow mbooloo ñu koy sànni ba keroog mu faatu wal ihsaani sa ñëw nag ay yata zawaja mooy mu takk imraatan jigéen ni kaaxam takk sahihan bi ak wér wataaxaa tañ koy laal wataan laal saxiix bi ak wér suñu yooyu muy ci góor muy ci jigéen mooy mu sëy morom ma sëy boo xam ne islam seet na ko mu wér jote itam ñoom ñaar jote boo xam dara sukk ca di ci jamono bi rek di ci jamono yësin jote ga jote bi wér la dañu ñëpp sëy bi itam wéroon na loolu loolu bu ci amee ñoom ñëpp kon ñu daal jàpp ni suñu nañ danaa bokk fa jógee ci ñoom jaaloo àtte bi mooy rey bi ñuy wax fa in lam yuxsan ndéem sañoo loo fu ko julli kon doo def ko di atta jël di tin téeméeri war waxar rabo xeeti tumurankeel ko alimaamu ilimaan ba ilaa ba yet dëkk ab dëkk aaxara beneen waxu gisa ci tëjeef ko fii ci dëkk boobee xaaman at bu fekkee moom mi njaaloo sañoo wut sañoo wut mooy mooy xëy na mës kee sëy wala mas naa sëy waaye mokkam sëy mutu yi mës ñoo jote far mbaa jote woon nañu waaye jote ba daa fekk muy jamono bi rek mbaa jamono aussi xam ne ban saas xëtt na ci li tax a sañoo daal su boobaa moom mi njaaloo mi koy caw téeméeri war yàlla ko yàlla ci bopp ndee digg doomu man nga xàccee itam moom
am ñu ko fa yore di ko aar wax tabaxee nag waxal xab di war na jaam fi sina ci ñaar yoo xam soona juróom fukk jaldatan ci ay yar wa kazalika naka noonu al amatu jëdeer wa intaana ak donte nekkoon nañu muta zow yu jay ni aji sëy daa bëgg wax ne jaam bu góor ak jaam bu jigéen ñooyamoo ko ci xam ne njaaloo nga nga sëñoo nga bañ a sëñoo ci yam moo tax mu naa donte ñu ngay sëy sax su boobaa ku ci mën dañ koy dóor rek juróom fukki yar waaye di su ko rey di su ko tumuraankeel nit ki di ko dàq ci dëkk bi jege feneen ba dara buñ ko yor buñ ko dóoree rek bàyyi ko moo tax mu ne wala taxriba jotul tumuraankeel xale ximaa di war ci ñoom ñaar mu dolli ci wala xale mara atin du caag yoonu ci jigéen tumuraankeel mooy li nga waxoon dàq ko ci dëkk bi ba ci beneen loolu des ko def jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen gannaaw dañ ko cawee ca njaaloo ba ba tey jigéen na ma waxoon léegi gannaaw dañ ko cawee kenn du ko def loolu cay rek doy na wala yu xaddu deful jotam alsaani aji njaaloo ja illaa bi itiraafin dara ci tudd nee na aji njaaloo lu tax ni di rek di njaaloo na dal koy jotam waaye ñu seet firnde yu wér firnde yu wér ba ci njëkk mooy mu waxal boppam kenn forcé ko mu kàllaf la ànd ak sabab ànd ak xelam ne man de dama njaaloo waxal ko boppam ndax bëgg ko seetal ci bàkkaar loolu am na ko ko defam boobaa kon ñu jàpp ko ci loolu def ko la ca war aw bi xam wala ci am yàlla xaru bopp dana feeñ bu dee jigéen joo xam ne amul jëkkër wala bu dee jamono njëkk ya amatut sang boole ca ndax léegi jaam amatut xanaa bu ñu amul jëkkër léegi nag doy na ndax amatul sangam jaam waaye bu dee bu njëkk dañ ci sartaale ba ñu nekk ji jigéen ju amul sang xam ne sangam sañ naa jotee moom kon nag bu dee jigéen jékki-jékki ëmb rek te amul jëkkër léegi kon nañu xam ne kon dafay njaaloo aw bi shahadati aw bi shahadati arbaxati rijaalin wala ci seere si yenti góor axraaru ñu di ay gor baabax yi nañu doyee kàllaf xuddool ñu doy maandu yaraw na ñoom dinañ ko gis kal mi di mel ni ab tusngal rek fi la mukk xolati ci dogal tusngal wa yashhaduuna te ñuy seere fi waqtin ci waxtu waahid ñu di wenn waaye nee na ba tey bu fekkee ne ñeenti góor jigéen bokkut tey gor jaam bokkut tey mu kàllaf gone bokkut tey ñu maandu ku maanduwul bokkut ñi ñi buñ tasee gisandoo jigéen ak góor ñi njaaloo ñu gis sawukaayu góor ga ñu dem ci sawukaayu jigéen ja ñu ab tusngal daan demee ci ab dencukaayam ca bu njëkk te mu bokk yan waxtu ñu ko gisee dama ñëpp ñu mën a waat ne seen bët lañ ca teg bu wér a wér amut nattable su boobaa bu li amee moom ñu jàpp ne kooku dañuy wax ne njaaloo na njaaloo na wa in lam yuttim man leen matalut ahaduhum kenn ci ñoom as sifata meloo xodda kon gétameef ak salaasatu ñett ña allafina ñi nga xam ne atam mooha matal nañ meloo nee na bu ci amee kenn ko wax ne man kat gis naa loolu mu toog nii ci kawam seen naa ko wéet nag waaye nag waruñu wóoru ñu ba xam àgg na ci moom déet ñett ñi des na waaw ñun dañoo wóor moom ñun dañ ko wóor su boobaa dañuy jàpp ne ñett ñooñu ñu wóor na leen moom xas nañ seen bokkum jullit ci ne njaaloona te amuñ ci lu wóor ndax kenn kii moom waxut la ñu wax su boobaa ñett ñooñu dañ leen di caw cawi ku xa ku waxal nit njaaloo ci sawut te dañ ko wax leen ni muy toll moo tax mën naa kon ñu gétan leen gétan xaste kenn ki wax ne moo ne man wóoru ma rek gis naa daal mu toog ci kawam kooku rek ay mucc moom kenn du ko caw moom li ma leen di caw nag dañ ko wax léegi bu dee gor ñu koy caw juróom ñetti fukki yar bu dee jaam cawee jamono ñu caw ko xaal ba ñeent fukki yar wala xadda dut gétan xalaa man bi war ka nga xam ne lam yaxtalim géntut géntut mooy kàllafewut maanaam koo xam ne kàllafewut bu njaaloo itam dañ ko war rek ngeen bañ koo defati waaye kenn du ko caw caw yi nga waxoon kenn du ko rey dara wayu xaddu def na gétam waati amati waalidihi aji laal jéggeeru bàyyam nit nag bàyyam amee jàmbu jigéen mu dem njaaloo jàmbu jigéenu bàyyam boobee du tee ñu gétam ko alali bàyyam dañ koy walit alali boppam te walaa yu xaddu def na gétam waati amati waladihi aji laal jéggeeru doomam nit nag bu fekkoon jébbee boo xam dooma ko moom mu daal njaaloo moom dañ ko jàppee alali boppam ndax la la yonente bi noonu waaji yaag sa waagi yaag sa alal sa bàyyi leen moom loolu moo tax kon bàyyi bi moom bu fekkee moo njaaloo jébbeeru doom ji du tax ñu gétam ko watu xawoon waaye def na ko xëy na xaale yi mu war ko wa in lañ taxamil ab doon te amut bu fekkee doom ji jotiwutoon mu dara ci njëkk baay bi kon baay du njaaloo mu nañ ko wax na ko faral xayma yi ñu féetli la ko doon yoon sa doom ji moom génn ji ab doon te amul sax ca laal ga wayu adda bu def na war ak sharib aji bokkaale bi fil amati ci jébéer wa yatta uhaa mbir moom dana ko laal ñaar buñ bokkee jébéer itam du tax kenn ku ne mën a dem soxna woon moom ñu koy bokk déedéet mën ñoo bokk moomeel ba ak liggéey waa njariñ la waaye ñu mën loolu bu kenn ko jekkee jekkee nag joteeg moom nag des ko ca jotam jotam jaaloo ndax la mu ci wàll ndax la mu ci am wàll waaye des na ko war ngir nañ koo defati wala ba mën tam war bu xiimataxaa xaymaam ja inkaar ndem nekk na loxo di ko ñeel maalum alal dafa bëgg wax ne su fekkee ëmb na boole ja dañ ko wax ne kon léegi fayal kee wàllam moom mu génn te nga far moom jàmm lépp te ñoo ko bokkoon léegi léegi fayal kee wàllam te moom lépp loolu mooy bu ëmbee fa in lam tax min dem ëmbut fa shariku kon aji bokkaale ja bul xiyaaru nekk na ci tànn bay na añ yatamaasaka ci diggante rek bu téye wàllam ba tey aw tuqawama wala wala dee fi xayma jébéer ba xale yi mu war ka ko laal waaw nee na bu fekkee nag buñ ko buñ ko buñ ko bokkee yéen ñaar moom ñëw na jotee jébéer bi ñoo ko woon sañoo ko woon waaye jébéer ba ëmbut ne bu la neexee nga ànd ak ñun bokk rek ba tey tamit lam ci def bu la neexee itam ñu xayma ko mu jox la sa wàll yooyu nga génn waaye ko ko wa in xaalat ndem wax na imraatun jigéen bi xaajoj nekk na ci moom xam lan ëmb ne ustukrihtu farseef na ma lam tusaddaq kon def ko dëggalal waxu dat te gitaneef ko nee na bu jigéen ju amul jëkkër ca bu njëkk ba it amul sang boole ci ñu gis ko mu ëmb ñu ne ko kon dangaa njaalo mu ne déedéet dañ maa forcé woon rek waaye damaa ko coobareew duñ ko gëm dañuy jàpp dafa njaaloo te maa ko coobareew dafa njaaloo rek su boobaa daal di ko jotal la ca war illa an taxrifa ndara fa dafa xam bayanatun ay seere ne annaha naka moom ni waxtamilat fëkkee foon na ko xataa xaabu ba mu fàdd moom moo ko fëkk xale xaa ci moom lu ne nag am na ay seere yu seere ne moom kat mas nañ ko jékki-jékki yóbbu ko ci kaw doole rek ba gisatuñ ko moog ko ko yóbbu su boobaa ñu ne loolu kon mën na caa xewee aw jaa at wala mu dikk mustax yi fatam bi muy ak jàmbat xindan naasilati fi xew-xew ba wala wet dafa ñëw jàmbat fi kanam àttakat ne ko kat am na ko ëpp doole ba siif ma kon bu ëllëgee bu ëndee daal ñu gëm ne kon loolu moo xam xew na moom la aw jaat wala mu dikk tardami mbir moom dana nàcc maanaam bu fekkee de jigéen joo xam ne mësta sëy mu ñëw nag ab sawkaayam di nàcc mu wane ko wane ne dañoo njaaloo moom te du sama coobare ba tey mës naa sukkandiku ci loola bu andee ñu jàpp nag moom ci loolu la ko dale wan nasaraan yi ak nasaraan bu góor nag di baaxasa ba ndeel fukk nag muy ndem daan na jël al muslimata ji bu jigéen
aw ti ci naa ci njaaloo ku ci la kon reef ko maanaam ab nasaraan baab yëfit ñoo ci yemoo bu jekkee jekki siif jullit bu jigéen daal di njaaloo moom dañ koy rey rek moom wa indoo jaxandeem doole na al muqiru aji saxal jëm ci naa ci njaaloo uqi la kon xàccaleef ko wa turika te bàyyeef ko maanaam dañu waxoon ne boo nee man maa njaaloo ah ku wax ne man maa njaaloo te fekk mu ànd ak sagoom di mu kàllaf kenn fasee ko ca dañ ko jàpp la mu wax dal ko dégg itam bu delloo gannaaw ne ah njaaloo ma kat moo xam teg na ko ci aw lay moo xam tegu ko ci aw lay moo ko waxoon daal léegi weddi na ko suba war dañ koy bàyyi rek ndax moo waxoon la waral ñu war koo gëdal moo wax la ko tey bi itam wa yuqimu dana sañ a taxawal wa yuqimu dana sañ a taxawal arrajulu waaja ala xabdihi ci jaamam bu góor wa amatihi ak jébéeram ñu jaamam bu jigéen xadda zina gitamu ñaaloo ila jahara ndem feeñ na xamlan ab ëmb alqaamat wala taxaw bayinatun seere xayrahu ku bokk te moom arbaxatu shuhadaati mooy yeenti seere aw kaan wala am iqraarun ak tudd tudd mooy saxal maanaam jaam bu waxal boppam ne njaaloo naa te wax ne jamono yi jaam amee soo amee sa jaam bu góor wala sa jaam bu jigéen te wër ne njaaloo na mën nga koo gitan bu aajoo bi di ko yóbbu ca àttekat ba lu ko waral nag ne njaaloo na mooy bu fekkee dafa jékki-jékki ëmb kon amul jëkkër te yow mi borom jotewul ak moom dara loolu kon njaaloo rek la ko yoon mën a jàppee wala yenn seere yi nga waxoon seere ko nañ ko waxee woon démb loolu it bu amee loolu sax na wala moom ci boppam mu jékki-jékki waxal ko boppam ci coobareem kenn forcé wu ko te ànd ak sabab bu wér te yëpp mën nga koo gital sa bopp ba aajo bi ci kanam àttekat ba walakin waaye nag inkaara ndem nekk na lil amati di ñeel jébbiir ba zawjun jëkkër xorun jadi gor aw xabdun wala muy ab jaam li xayrihi ñeel ku dul moom fa yuqiimu kon du taxawal alxadda gitan nga xaliha ci jaam bu jigéen ba illa sultaan mbee attakatu jullit ba nee na bu fekkee ne sa jaam bi def njaaloo yi jigéen la ñu ngi koy moom moom nag may nga ko jëkkër te jëkkër ji gor la su boobaa kon su njaaloo itam war ngaa sàmm jëkkëram ji nekk góor ba yow ba waaxu rek ni laa koy caw danga ko yóbbu ci àttekat bi mu caw ko waaye yow bu ne boo koy caw sa bopp ndax bu fàtte ni am na jëkkër te jëkkëram góor la ba tey bu fekkee ne jëkkëram jaam la ne moom waaye moom moo jëkkëram kenn ne ko moom kon na nga ci seet ak jàmbur joojee na nga bàyyi àttekat bi caw sa jàmm jigéen bu njaaloo te jëkkëram doon jaam la moom waaye moom moo jëkkëram jooju bàyyi àttekat bi caw ko te yow nga doon koy caw man xamala ku jëf xamala qawmi lootin jëfi nit waa loot ba jëkkërin ci góor baalixin guy aji kàllafe ataaxawoo goo xam ne coobarewu na ko rujima kon jëmee fi leen ñoom ñaar uxsina moo xam sëñoo loof na leen aw lam yuxsana wala sëñoo loof leen jëfi nitu loot alquran koy nett lu bari ñu jëf ji ñaaw mooy góor war ci kaw moroomam góoram jël ab sawukaayam def ko ci bunt suuf ak borom góoram loolu dafa ñaaw lool ne loolu nag atte bi ñu ci atte ci lislaam moom mooy ñaar ñu ko def rek te nga xam ne ñoo ko coobaree kenn forcé wu leen ca ñoree leen ñoom ñaan ñëpp moo xam fekk nañu señoo moo xam fekk ñu señoo ndax loolu duñ ci sart ak señoo waxalal qaadiri war na aji xaste alxurri di ci góor alxaddu gétan tamaanoona tamaa juróom-ñett fukki yar waxalal xabdu war na jaam arbaxu na ñeen fukk fil xas fi ci xaste waxam soona ak juróom fukk fi si naa ci ñaaloo xas nit mooy tuumaal ko ci mbirum njaaloo te soxut koo xam ne waxal na moroomam tuumaal ko ci njaaloo te soxut kon des koy caw ba mu ëllëgee du ko defati kenn bu dee gor ñu koy caw juróom ñetti fukki yar bu dee jaam ñu caw ko xaajub loolu mooy ñeent fukki yar bu di ko waxalit kenn bu ëllëgee loolu wax ne nag jaam bi des na ko caw juróom fukki yar ci njaaloo da ko baam rek ngir sësale ci waaye waxal na ko démb wal kaafir ak yéefar yu xaddu def na ko gitam fil xam fi ci xaste tamaani na juróom-ñett fukki yar ak yéefar bu waxalee kenn mbirum njaaloo te saxut ba tey ñu caw ko juróom-ñett fukki yar wala xadda dit gitan xalaa xaadi fi xabdin di aji di war aji xas jaam bu góor ak kaafir wala ab yéefar dafa wax ne nag ab jaam moom loo xam ne waxal ko ne ko dangaa njaaloo te fekk na saxut ak tooñ ni sax waaye ab dara yàqu wàññiwul dara bu fàtte ne jaam nag mooy koo xam ne dañ ko woo ci lislaam ñu bañ ne ko nañ la bàyyi ci sa diine te ngay wax lislaam gawat ñu bañ ñoolu bëti ko xeex ak moom ba jàpp ko loolu moom mooy jaam dëgg-dëgg kooku nag moom yàqu daram ci nekkoon njaaloo mi rek ku ab julit defee du tax ñu caaw ko ca loola ab yéefar it daanaka bañ yëf yi yëf yi bañ yooyu kon waxal ab yéefar ne ko da ngaa njaaloo itam te fekkul mu sax du tax ñu caaw kee ko kee ko wax buñ bëgg ko wax kenn du ko ci caaw muy xaddu def na gitam xaal defu sabiyati aji xas xale bu jigéen bis ci naa ci njaaloo inkaan na nekk na nit bu xaa ku toll ne moom yow taw dee fi ko mën a laal moom dee fi mën a joteeg moom dafa wax ne xale bu jigéen boo xam ne ci at mi gone la waaye jëmm ji moom daa kàllaxee ku seen boo ko nekkee dafa njaaloo mu gëm ko ndax defe ne loolu mën naa nekk waaw ku waxal loolu xale bu jigéen bu toll noonu te soxut des na ko caw ndax yàq nga yàq jarul xale bu jigéen boobee mais bu fekkoon ne moom kenn mënta jotee ak moom da ko wax rek waaye xam nañ ne moom da da daa war a yàqu dara waaye loolu amut kon loolu moom waaye ndeyam nag moom buñ ko séenee gëm ko ndax tolluwaay ba kon nañ ko caw moom ni ko waxal loolu wala yu xaddu deful gétam xaar ci fëdd sab yi xaar di fus sab yi aji xas xale bu góor dañu wax ne xale bu góor moom ku ko waxal ne ko dangaa njaaloo te fekk na saxutit du tax ñu gétan ko moom mi ko waxal ndax xale bu góor daanaka loolu du nekk du tax mu yàqu deram ndax bu dee ñenn ñi sax ndam lañ koy def bu dee ci aada ñenn ñi loolu moo tax moom kooku dees ko jaw wala xaar da déet gétan xalaa man di war koo xam ne lan wabluxu kan la fewut fii xam ne ci xaste wala waxta mu caageen ak laal maanaam koo xam ne kan la fewut bu yàqee deru jàmbur ci njaaloo wala moom ci bopp mu dem njaaloo def ko itam maanaam dem njaaloo it du tax nit def ko la ca war xanaa ñu jàpp ne gone la rek moom dañ ko war rek bàyyi ko yar rek bàyyi ko waaye kenn du ko def la ñu def ku xas tey mag wala ku njaaloo tey mag wala na faa ku dàq rajulan waaye min nasabi yi ci askanam fa xale yi war na ko alxaddu gitam maanaam ka nga xam ne fekkee nit dañ koy bàyyeelu nit ne ko diw mooy bàyyam loolu lañ ci xam soo ne ko diw moomu sa bàyyi rek loolu kon yàq nga mbiram loolu ma ko waxul sax ne ko na ngaa ñaaloo moo moo ko xawoon a tane waaye kon koo xam loolu nit dàq ko ci aw askan wañ koy askan jëme ca ñu caw ko li ñu caw koo xam nit ñaaloo ti sawut ndax loolu tong réeré la wa fi taaxari bi nekk na ci gaaral alxamdu gétam nee na bu fekkee xàppatiwoo ci digg ba sax ne ko yow mi da ngaa njaaloo waaye ci la nga waxee rek xam ne ne moom ngay gaaral nekk nga naa ah man de xaw ma ko njaaloo waaye man dama njaaloo fekk na xëy na nañ ko waxal mbaa yooyu nga xam ne yàlla xam ne moom ngay wax loolu ab gaaral la loolu moo xàppati lañ yemale ku ko waxal nit rek ñu coow ko wa man xaaral ko wax leeral ju leen ñeel waaye ne ko yàlla te yow ko jubloot ki xodd kon gi taneef ko maanaam jëfiloot ji nga waxoon dafa ñaaw bu askani bu askani nit jëme ca ne ko yow mi def yow def katut yow def katut jëfi wala loot yi loolu ko waxal ne teg ñu taw ko ñu gitan ko gitan xaste maanaam moo waxaloon ko ñaaroo la ñu yemale ndax moom jëfi ñu ñaaw la mbaa mu gën a ñaaw ñaaroo wa man xafafa ko xa koo xam ne xas na wa man xafafa koo xam ne xas na jamaaxatan mbooloo fa xaddan gitan waaye bu ngudi genn yàlla sama koo dana ko war li man ñeel ka nga xam ne xaama taxaw na bi ci ca waaja min xum ca mbooloo ma sama laa show topp di dara xale di ko war te nag bu fekkee ne moom dafa waxal kenn ko njaaloo nga di waxalaat ko keneen di waxalaat keneen ba mu nekk mu lim ñoom ñëpp rek kenn jotu ko cee dóorlu kon buñ ko jàppee dóor ko benn yoon rek dana mën ko setal dana ko setal ci mboolem ñoo ñoom ko waxal ñëpp ñëpp du aajoo kenn ku ne ñu cawal la sa layu bopp waaye nag bu ko waxalee kenn bu kooku cawlu ko mu ëllëg dana ko waxal keneen waaw du tey itam ñu cawaat ko ci ku ñaareel ka waaw bu ko waxee waxati ko te kenn cawu ko benn benn caw dina mën naa yóbbaale ñoom ñëpp waman karrama ku baamu shubal xamri naan sàngara aw zina wala njaaloo fa xaddun gétan waaxidun ko liggéenn fi dalika nekk na ci loolee kulli hi la bam nee na benn xeet fekkee lenn da ko def ay yoon yoon te jot ñu ko caa gitan ni ki naan sàngara def na ko ñaar yoon mbaa ñett jot ñu ko caa gitan benn yoon wala mu njaaloo ñaar mbaa ñett yooyu yëpp dañ koy jàpp ne genn rek waaw fekkee loolu ñu caaw la ñu ko cawe benn yoon rek ñu yóbbaale mboolem nam naan sàngara ak mboolem yoon yoon ñaaloo waaye du aajoo yoon bu nekk ñu cawe ko caw boppam
وكذلك نك نون من قد فك خص جماعة دولا لولو كو بام واي waxon nako legi ñu waxon lay ko xasu doolo jotu ngi ko jaw ben yoon ngi ko jaw ben yoon rek mu doy ñu baale ñepp ñepp di dar kenn ku ne ci la wala ñu ci mat fu ko xamni war nako hududun ay getam wa qatl ak ray wal qatl kon ray ga yu ci sew dana doy am taali ko wëlis noonu illa fi qasfi dara ci qasdu moom fal yu xadda na gëta neef ko qabla an yuqtala njëkk dee fi ko rey nee na koo xam ne ay gëtin gëtam na ko war lu bokkut ak rey mooy bëtu ko def nañ ko war a rey boole ci mel na moom dafa njaaloo waaye fekk na boobu sëñewut caw rek ca waroon mooy bëtu ko naan sàngara am nga ko ca waroon na ca mooy bëtu ko yàq derub jàmbur ci njaaloo te saxut kooku ca war na ca mooy bu tugguree ab julit tey ko nag yoora fay ci moom la nga xam ne kon yett yi nga wax yett yi nga wax yëpp moom jotu nag caw rek la am waaye rey gi mu rey ab julit tey ko nag noonu ko ci war a rey mu ne kon du aajoo ñu koy caw yari njaalo yari njaaloo ba du aajoo ñu koy caw caw naan nga sàngara waaye nag yàq gi yàq derab julit ci def jëfi njaaloo te def ko noonu ci la ñu ko jotee na njëkk dañ ko jotee na noppi ba setal derab kooku door ko rey nag rey fayantoo ci julit bi mu rey wamin shariba ku naan xamaran sàngara aw nabiran wala am xonju xonju mooy njambaan muskiran muy aji màndal xodd kon gitaneef ko tamaani na juróom ñett fukki yar sakira moo xam mandi na aw lam yaskar wala mandiwut wala sijjina waaye dit tëj kaso aleeg di ko ca war sàngara koo xam ne naan na ko ba njambaan moo xam ne dañu ba am ci dëgërëb màndal xeeti njambaan yi moom bu fekkee amul ci dëgërëb màndal bu waasoo rek la dagan na xewal la noonu waaye bu àggee dëgërëb màndal rek sàngara la ñu leer ko ci naan lu mu néew néew donte mandiwut lu ci caw ko juróom ñett fukki yar kon àttib naan sàngara mooy loolu waaye du yëtu te kaso nag te kaso moom du ca war waaye jarra du def na futti almahdoor ku ñu jëtan maanaam ku ñu jëtan ci caw des koy summi ba ndax bëgg yaree metti dañuy bañ dañuy bëgg yaree metti waaye nag kenn du sàngi awraam awraam moom dañ koy suturaal wala tujaaro du defu futti almar atu jigéen illa min ma ndara ci la nga xam ne yaqiha dana ko fegal ak darba door ba bu dee jigéen moom dañuy dañ koy suturaal bu baax lu muy rek lu mën a tax yaree lu metti loolu rek la ñu dindi waaye lépp loo xam tutee yaree metti rek moom des koy bàyyi des ko ci bàyyi bu dee jigéen boobu jële daal def na leen dóor ñoom ñaar xaaxi bay mbir mi ñu aji toog muy góor muy jigéen dañ ko dee gétt gétt nag caw dañ koy dij dañ jël ab jalab suuf tooyal jal ba ak ndox ba nga xam ne su tuuree ndox ci biir jë dóor itam loolu nag ci sutura mel ne ndox mañ fa tuuroona su ko defee dañ la dij ko nag di di xàcc na di dóor xàcc bi day digg doomu yare itam day digg doomu rek lépp di wees wala tuxaddu deful gitan xaamilan aji ëmb xatta tabaxamateen wut ca doom ja wala maridun du caagoon aji tawat mustaqalun ko di kuñ diisal tawat xatta yobra amateen mu wéree koo xam ne dafa ëmb te fekk ñu war koo gitan dañu bàyyi ba mu am doom xanaa yi bañ bu ñu ko defee gétan gi léegi mu am ca doom ja donte dafa njaaloo ba ëmb ca it du tax ñu def ko gétan gi ci biir ci biir ëmb bi ñu bàyyi rek mu am doom bu dee ko tawat kenn ku gétan ci tawat ji dañu bàyyi ba mu wér ndax mën naa ñu fal ko gétan mu far ca faatu te kon bakkan la ñu gàddu wala waqtul defu rey waati ul bahimati ajlaal bahima wala yu xaaqab na buggaleef ko muy nu wareef ko xanaa ku fekkam bahim mel ni aw am xar wala bay mu njaaloon moom moom dañ koy def ñu ko wane rek jaal njaaloon nit kenn ko def li ñu def ko njaaloon nit dañ koy caw dañ koy yar rek dañ koy yar rek bàyyi ko wa man salaxa ku sàcc rubaxa dinaarin kaaru dinaar daaban ci wurus aw maa wala loo xam ne qiimatu fa qiimaam yow ma saraxat ci bisub càcc ba talaasat drahima ñett dërëm la nal xoroo di ci xeeti marchandise yi aw wasna salaasat daraahima wala mandaxe ñettalam fiddatan ci xaalis potixa kon dogeef ko ila saraxa ndem sàcce na man xirisin ci ndàmb ndàmb mooy dencukaay dafa wax ne sàcc dañ ko sàkkal asaka joo xam ne dañ ko sàkkal nisaab maanaam sàcc dañ ko sàkkal nisaab joo xam ne bu fekkee la nga sàcc amu ca ci tolluwaay kenn du la dokk bu dee ci wurus bu fekkee matul kaaru dinaar kenn du ko dokk bu dee ci xaalis dina mat ñett doom ci yoon kenn du ko dokk bu fekkee doo rutu xaalis dañuy seet ba xam koo xayma xayma yi dina mat ñett doomi yoon wala ñuy seet maanaam ñetti dërëm yoon nag boo ko dee seet ci at mi nga xam ne ci lan toll muy 2004 dafa mel ne boo dee seet benn dërëm xaymaam du sori 2550 loolu mooy benn dërëm bi loolu nag kon boo ko defee ba muy ñetti yoon day mel ne kon ñett dërëm yoon war naa tolloog 7650 7650 daal mel na ne at mi toll foofu la ñett dërëm yoon di toll te it bala ñu koo dog day fekk mu sàcc ci ab dencuwaay xanaa bu fekkee buñ ne fi ñu ko tegoon ñu ne fii ñu ne ah ko kat moo ko def nag borom yoo fi kat moo ko def waaw bu dee lu mel noonu moom ko ko sàcc kenn du ko dokk te aajowoo man xis bi wax ndaam bu mooy rek dencukaayam leen lu nekk dencukaayam rek moom wala xataa deetul dog fil xulsati muy nekk ci fëkk fëkk mooy siif koo xam ne bi muy ñëw yaa ngi koy seen mu ñëw mu daal gaaw rek fab daal di dem loolu siif la nga wax loolu ku ko def gis ko jàppe sàcc sàcc mooy bu dee ñëw day làqu bu dee génn di làqu kii na moom làqu tuutoon waqtahu def na dagg fi zalika ci loolu yéen rajuli loxol góor wal mar at ak jigéen wal xabdu akub jaam maanaam ko sàcc buñ ko waree dog muy góor muy jigéen muy jaam muy góor a ci yam loxob ndeyjoor ba lay njëkk a dagg ci tiku jara ba soo in salaxa topp dem sàccaat na xuti xa dogeef rajuli tànkam ba min xilaay bin ci géwéle maanaam bu sàccaatee sàcc ñaareel dañu dem ci tànkub càmmoñ ba bëgg ko ci dogar ba soo in salaxa topp dem sàccaat na fayadu foo loxoom ba ca des maanaam bu sàccee sàcc ñetteel ba mu dem ca loxob càmmoñ ba dama ko ca di ko jare ba su ma in saraxa topp ndem sàccaat na fay julufoo tànkam ba ca des bu sàccee sàcc ñeenteel nag tànku ndeyjoor bee desoon ñu dem nag léegi dagg ko ca bëgër ba moom itam su ma in saraxa topp ndem sàccaat na julli la kon dooreef ko war sujj na te tegeef ko kaso bu xasee sàcc ñeenti yoon nga xam ne defeetul loxo defeetul tànk teew ko sàcc yoonu juróomeel waaw su boobaa nag moom dañ koy dóor rek tëj ko kaso waaye amatul la ñu dagg ci moom wa man aqara koo xam ne saxal na bi sadaqatin ci càcc xuti xa kon dogeef ko maanaam mu kaalaf moo xam ne am naa sagoon kenn forcé ko bu ne man maa sàcc ñu jàpp la mu wax daal di koy def la ca war ko waree dagg dagg ko wa im rajaxandeem dellu na ne sàcc ma uqi la kon xàccaleef ko wa garina te mu fay ba sadaxata càcc ba inkaaram doom nekk na ma xoo di ànd ak moom wa illaa ndéem ànd ak moom ëpp bi xa kon toppeef ko bi xaa ci moom maanaam bu nee maa sàccoon dañ di ko bëgg a dagg moom wëtiku ne kat sàcc ma jëmi dagg dañ koy bàyyi waaye nag du tey topp ko càcc ga moom mu fay ko ndax ndéem wax na ko te loola borom nee na gisatu ko dañ ko sàcc moom bu nee maa sàcc dañ di ko bëgg a dagg mën a sàcc ma ko it du tey ñu topp ko moom mu fay te bàyyi dagg ga waaye man uxi koo xam ne jàppeef na ko fil xir si ci ndàmb maanaam ci dencuwaay lan yuqta def ko dog xataa waxru jëmbati mu génnee as saraxata càcc ba mu xir si ca ndàmb ga maanaam bu fekkee nit ci denc waay muy sàcc ñu koy fekk ci biti mu di ko topp ba dugg ca biir waaye jot a génne dara ci biti dañ ko waxu rek mu daal génn daw ko amul lañ koy daggee li fekk génnewul lam doon sàcc ca denc waay ba rek dañuy jàpp ne loolu du sàcc bu ko xasee génne la doon da ko sëq sànni ci biti itam du tee loolu ak génne la loolu tey moom ñu dagg ko moom wa kazalika naka noonu alkafanu càngaay min al qabri ci bàmmeel maanaam ku duggoon ci bàmmeel di sàcc càngaay la mbaa leen luy sóolaaleeg néew ba buñ ko waxooree mu génn daw jot te génne dara ci biti kenn du ko dagg waaye bu jotee génne loola ci biir bàmmeel ba rek kon génne na ko denc waaye ba moom su boobaa kon des na ko dagg su fekkee loolu mat na ci xayma ñi saabu sàcc ji mu waxoon léegi addina boobu digaleef na loxoo ñeel ko fii doxool yi ci duggoon lam yëq tax def ko dog waaw nee na bu fekkee ñëw ba mu ñëw yëglu woon ba ñu ko ne bismillah jàll si ba mu ñëwee ne mu am lu fa sàcc kooku des ko dagg ndax dañuy jàpp ne dafa war rek mooy dañ ko wóolu woon te moom da ci mëtt wóolu sàcc ñu ko waxee woon bu dee ñëw day làqu bu dee génn làqu kii nag moom daa wóolu ba ñu ko ne jàll si mu ñëw nag fab fay fi jaamar wala waqtahu deful dog al muxtalis aji fëkk loolu baamu la ba mu ne wala xat fil xulsati weesoon nga ko léegi àtte boobu benn la ku ñëw siif rek daal di gaaw dem kenn ko dagg wa iqraarul xabdi saxalal jaam ba bu la neexee tudd jaam ba fii naa ci la nga xam ne yàlla sama dana ko war fii badanihi ci yaramam min xabdin ci gétan aw xatxin wala dagg yàlla sama dana ko war nee na jaam bu fekkee daa wax ne nangam maa ko def jekki jekki waxal ko boppam waaye dañ ko seetee doo suñu war ko caa gétam niki bu ne mbaa njaaloo mbaa maa sàcc war moo ko ko caa dëgg niki sàcc ba woon loolu moom nee na des na ko ca topp def ko loola bu dee gétam ñu caw ñu def ko bu dee gétam ñu dagg itam ñu def ko ko wamaar loo xam ne kaana nekk na fi raqabati yi ci baatam falaa iqraara déet ko saxal loxo di ko ñeel maanaam bu waxee loo xam ne soo ko toppee day aajoo mu taxaw ci borom bi ko moom dem ci keneen suba yaa des ko ci topp ndax dañu yaakaar ne kon mais soo ko tuumaal ne kon daa bëgg bàyyi ko ci boromam bi dem ci beneen rek léegi am na ku ñu dagg loxoom ci dëkk ba xam nañ ko mu doon xam nañ ko mu ko def moom jaam bi mu ne naa dagg loxoom gor soosee bu ko toppee gos daal bëgg a fayoo jaam bi moo tax mu ne kon daa bëgg a tàggu boromam bi rek dem ci boobu loolu moom boo ñu ko nangu gis ci lu ko saxal waaye ay wax kese des ko ci topp wala xat xadeetu dogg fii samarin ci meññet mu xàllax li mu di muy aj ca garab ya ak li jublu mooy meññet bi nga xam ne kenn sàkk ko garab ga ko meññ ci la nekk ba tey garab ga kenn aaw ko kenn def ko dara ko fekk noonu ci àll ba rek sàkk meññet ma ko fekk foofu sàcc ko du tax ñu dagg la ndax loolu dañuy jàpp ne loolu dug denc waaye waaye su wattoon meññet ma ñëw ba ci kër gi mu aj ko ci kaw garab ga ci biir kër gi loolu ab denc waay la moom wala fi jummaari du caagee ni ci xoli tàndarma ya fi nax li ca tàndarma ya dafa am lu ñuy wax xolu tàndarma mu nekk ci tàndarma ku ko sàcc te sàcc ko ci tàndarma boo ko meññ rek noonu loolu de suñu jàpp ko ab denc waay moo sàcc meññ ci garab yi noonu rek te kenn aarul garab yi ñooy moom wala fi xanam du caagee ni ci kàtt yi arwaaxiyati ajoot wala nga ne aju fori xataa tusraqa ba te def leen sàcce min muraaxiha ci seen yoon waay gàtt yi nga xam ne mu bàyyi rek métti li ñu def rek boo xëyee jëf bàyyi sa jur ñu dang fooy bu waree naan si naan si yooyu ku dogale jur boobu ci àll ba sàcc ko kenn du ko dagg lu muy am nañ béréb boo xam fa la ñu baaxoo yendu kooku fekk ñu foofa nag sàcc leen foofa waaw su boobaa ku leen sàcce foofu moom ci jàpp ne loolu ab dencuwaay la door koo dagg wa kadalika naka noonu ak tamru tàndarma mi ngi am dori ca bojjukaay ba tàndarma dàgg ba nga xam lañ koy weer moom dàgg dugub ñooy moom dàgg ji ab dencukaay la ci moom doon sa doon dëkk ba it dañuy jàpp ne dàgg ji moom foofu baaxoo nañ faa denc kon ku sàcc tàntal na ji wala dugub ji ca dàgg ja du tee ñu dagg ko ndax foofu moom ja dañuy jàpp ne denc waay la jàpp ne moom fa nga xam ne mooy dàggoo tàntal na ji rek fa la mën a dem fa la mën a def tàntal na ji kon nag ku sàcc foofu ñu dagg la doon sax teguñu fa kenn koy koy barbe dañ fay dëkk ba du tee ku sàcc ñu dagg la walaay foofu deful tun li nga ñeel koo xam ne balaga jot na alimaama alimaam ba su saraxat ci kàcc woo ci maa njaaloo nee na koo xam ne sàcc na ba àttikat bi yëg ko mbaa mu njaaloo ba àttikat bi yëg ko faaw rek ñu war a doxal santaane yàlla dees ko mën a tun bàyyi ko faaw ñu war a wéy santaane yàlla ba moom sax bu yëgam ci boppam njaaloo te kenn waxu ko mën naa suturaal boppam rek dañ ko wax kenn te tuub rek bàyyi noonu waaye nag bu ko fi àgg ci àttikat bi moom faaw ñu doxal ci santaane yàlla waxtu dafa wéeteef na fi zalika ci loolee fil xas ci xaste maanaam nag bu fekkee nit dafa waxal nit ndax tànk jaaxaan te sumat bu ko àtt bi xasee yëg ndax moom it faaw war na caa def santaane yàlla te mooy caw ko wala déedéet mën na koo bañ a caw ndax bu ko cawee day day day gën a day gën a yàq deram gën gën tuumaal nga xam nga duñ ne diw nañ koy caw duñ ne lu tax ñu daa waxal bii kat ndax tànk jaaxaan kon diw yooyu gën naa siiw kon am nañu ne moom xas na moom si àgg ci ilimaan bi itam moom man xas bu dañoo siiw boo ñëwee tuuma bi siiw mën naa wax it mu bàyyi ko ko wala am nañ ci wute waaye lu gën a wóor nag mooy bu fekkee ne moom moom mi waxal wax ji ñaar boobu dañ naa siiw daal bëgg bëgg naa suturaal boppam donc mënees na mënees na koo topp bàyyi teew kooka kon li wax moo gën a seewoo sukkandiku lool moom saraxa ku sàcc ñu tàmm ci lafa mbubb fatixa kon dagoof ko maa lafa mbubb wala poos wala kaala wala laxasaay bi yëpp la ñuy jàpp ne dañ kaw la ci nit ki kon bu sàccee ci yooyu rek ñu war koo dagg donte borom borom nelaw bu dee ñu war koo dagg mu ko sàcc moom saraxa ku sàcc mu ne xuri ci ndaagaan di wax ndaagaan rek waaye mooy maa nga siin bi nga xam ne ci la buur dina def li ma fi julit ñi moom ni kii xeetu bagage ak ñoom muy ndaanaan ay nanga si wér la wa baytul maali ak baytu maal baytu maal nag mooy kees bi ñu def àll àll yëru sa xaalis si julit ñëpp moom wal max na ak màng màng mooy lañ nangoo ci yéefaree ñu alal yi ñu xaraji yi ñoo ko moom su boobaa fal yuqta fal yuqta na dambeef ko maanaam maa ngi si bi ñuy denc ci yëfi jullit ñi ci xeeti bagage ak ñoom wala kees baytimaal kees mi nga faru sa xaalis wala xeeti yi nga xam ne boo ko defee ci sàcc bu dee jullit am na ci yàlla bu dee di sàcc noonu ñu nat ni sàcc yooyu nañ ko dagg lam ci am am àq bu dee nañ ko dagg waxee la wax na ne in saraqa ñoom sàcc na foo ko xaq yi ci ko àqam mu moom moo xam ne la ca màng wax bu falaafat darahima ci ñett dërëm ba taxu kon dageef ko am na ñu ne dama war a seet bu fekkee ne ak màng la xam ne war na caa wàll ñu seet ba xam ku jëm wàllam te fee du ko doon séddale moom sàcc nag la ca topp ci wàllam bu matee ñett dërëm mais ñu sàcc sàcc mu war koo dagg waaye bu loolu kon duñ ko dagg am na ñu wax loolu mooy daa leen wax ñu njëkk wax rek la ñuy seet mooy duñu seet yàlla mu nekk dara seet la ca topp ci sàcc bi dee dañ ko dagg rek bu sàccee ci yooyu wayut tabax def na topp asfaaruxu aji sàcc ja ifaa xutix moom dageef na ko bu xiimati maa ci xaymaa la nga xam ne faata raw na mu ne sarixati ñu sàcc ga fi malaay yi ci yow malam noonu nag nga xam ne moo sàcc daggal dagg ak cëram du teel mu fay sàcc bi dama moom gis ne nag ko topp mën a fay kon dañ koy topp bu fay boole ci maanaam bu sàcc lam sàcc bi ànd na ne dañ ko saa su jox borom waaye nag léegi dagg nañ ko yorul tam jëmm sàcc ba ci boppam waaye ku ko topp mën koo fay ba wàllu gi rek mooy ko topp moo fay dañ koy topp kon mu fay ndax dagg yi ak jàpp rek la moroom dañu def lim def rek waaye taxul nag amul jàll jum jël mu tey moor ko wala it tabaan dootu ko topp fi xóot mi ci ñàkkam bu fekkee dagg nañ ko ba noppi nag te moom amul dara ku ko topp du mën a fay wala ngën a yaakaar so yaay bu ñu ko xasee dëgg rek bàyyi ko waaye tabax def na ko topp fii xuddi ñu ci ñàkkam bu ci la nga xam ne laa yàq taxu def ko dog fii ci moom mën na saraxeeti jàcc ga maanaam bu dee càcc boo xam da ngay rëcc nag benn lam sàcc daa matul ñu saabu sàcc mbaa fa ko sàcc daa ñëkkul denc waay ak mboolem yi nga waxoon ne des ko dagg kenn yooyu moom ñoom dëgg ñu ko ci benn wet faaw ñu topp ko mu fay loola moom bu ñàkkoon nit tee ñu topp ko ko bis baa ñu fay ko waaye moom du mën a ñàkk baabul li ab bunt la fil aqdi